bisimilahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin ñoo ngi sant yàlla di julli ci sangu-sangi di seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mbokk ñu ngi am ñëw ak yéen ci kattanu yàlla seen émission bi di ndénkaan ñu ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaanal way tawat yàlla fëgg seen bopp way dawlu yi yàlla yërëm leen ñun ñu fi desandi yàlla ñoddi fan yi te wéral yi ñu ngi nuyu soppe xarit am di jàmm képp koo xamante ni bu ñuy àddoo yaa ngi teewlu ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm sutura xéewal gu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yéen ñu ngi ñaanal Seyda Zeynab fee mu tëdd ci caaro yàlla na suufu caaro woyof ci karam ñu ngi nuyu ay soppeem ak ak ñi nga xamante ni ñu ko doon safoo ñu ngi di ñaanal kendal ak jàmm sunu mbokk yi ci bërëbu yarukaay di wax ni jub du fa tee dem waaye dëng du fa tax a dem ñi muy seen nattu yàlla nay seen faxasug bàkkaar ñu leen ñi muy seen yar yàlla nañ fa jaare yaru ndax nag am na ci ñoo xamante ne faaw ñu yar leen kon yàlla na yàlla def ñu bu ñu fa génnee ah, bu ñu fa duggaat ñu ngi nuyu di ñaanal jàmm ñi nga xamante ne ñoom la bokkal plateau bi tey nag may am mbégte di ah, àndaat ak kenn koo xamante ne dama ko namoon lool muy oustaz Birama ñu ngi koy nuyu di ko tatagal di la ñaanal jàmm sutura a gu sax dak yàlla na ko def ci yow namoon nañu la waaye ñu ngi nuyu ànd ak bàjjen Louise bàjjen ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal jàmm jox ni sutura xéewal gu sax dàkk yàlla na ko def ci yow def ko ci sama turandoo bi ak njaboot gi yëpp ñu ngi lay ziyaara di la ñaanal jàmm di nuyu suñu moom kooku nag mooy maire Thiama euh, l'infatigable Thiama gis ngeen ko fa tabarakallah ñu ngi koy nuyu di wax ne euh, moof bi sax na ñu ngi lay ñaanal jàmm sutura si xéewal gu sax dàkk yàlla na ko yàlla def ci yow def ko si euh, sunu càmmiñ bi alburi def ko si njaboot gi yëpp yàlla na yàlla dolli la jàmm ci kanam tuuti sama doom dina ñëw roqee incha allah bu ñëwee fekk ñu ci liggéey bi waaye bale boobu dañuy ànd ak euh, waa Régis wala ñu dem studio do jëli euh, li nga xamante ni euh, jëli revue de presse bi ak sama doom roqee roqee yaay booy. nen na tuuti noo def. maa ngi lay ziar mbaa yaa ngi am jàmm. alhamdulilah maa ngi si jàmm. bu bi rafet na. <laughs> merci beaucoup yàlla jàppale namoon naa la lool. wallaay maa la raw lu bari bari yaay booy. ana lan nga ñu indil tey ci revue de presse bi. yéen yi li ñu xëyee yaay bëri na bokk na ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllum politique ak wàllum tàggat yaram doore ko ak euh, yéen kaay bu ci mel ni l' observateur groupe Futur Média yéen kaay bi daal di xëyee ak ñun jël xëtt mu njëkk jagleel ko Balla Gaye mi nga xamante ne moo am ndam barki démb ci kaw loo Balla Gaye na mu def ba daal di daan mbërum parcelle mi xëy na tey nettali ko ñii di waa l'observateur yéenekaay yéenekaay bi tamit yemul foofu daal di nay ñëw ci li nga xamante ne démb moo wàcc. mu soxal présidentielle yi ñu dëgmal ak ñaari candidat yi nga xamante ne génneegum lañ leen ci list bi muy Karim wàdd ak ki nga xamante ne mooy Khalifa Babacar Sall l'observateur nañu fi mu toll nii nag waa ku jégi jóg nañu taxaw temm ner a jàkkaarloo ak nguur gi yéeni kaay groupe Futurs Médias bi tamit ñëw na ci président Macky Sall bi nga xamante ne démb jot naa dalloo génn ko wàll ci li nga xamante ne mooy train express régional di TER bi nga xamante ne moo nar a daw diggante Diamniadio ak Vox Populi moom it ñëw na ci lu ni mel yéenekaay bi daal di ñëw ci rek li nga xamante ne mooy xalifa Sall ak Karim Wade Vox Populi nañu tey jii électorat ñaari mbër yooyu ci kan la war a rek daal di dem maanaam ñi nga xamante ne ñu àndoon ak xalifa ak ñi ànd ak Karim tey comme que seen i mbër génne nañ leen ci làng gi ñoom ci ginnaaw kan lañ war a bootu loolu mooy laajub Vox Populi yéenekaay bi nañu conseil constitutionnel jamono ji ñi mu dëgg la gum mooy président Macky Sall Idrissa Seck Ousmane Sonko. El Hadj Issa Sall bu pur ak kii di ma maître Madické Niang juróomi mbër yooyu ñoom ñoo noppeegum Vox Populi yemu fa ndax ne nañu démb ci ngoon gi tàngoon na lool foofee ca fa nga xamante ne moom mooy ca Sacré Cœur ndax ñooñu Khalifa Sall yi jàkkaarloo nañu ak way takk der yi gannaaw Vox Populi laasit ci lu ni mel la rekk daal di xëy yéeni kaay bi daal nañu ñaari kaay yi daal di nañu leen régler muy kii di Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall ndax ñoom jamono ji ci liste nëgëndiku bu conseil constitutionnel ñoom ñaari mbër yooyu duñu ci bokk laas tamit ñëw na ci président Macky Sall nga xamante ne ngoonuk démb gi mu ngi doon rek euh, dalloo li nga xamante ne mooy train express régional yéen kaay bi nag la mu ca gis mooy train présidentiel bi la euh, président Macky Sall daal di dugg las tamit euh, jox na kàddu ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllum wér-gi-yaram nañu waa ànd gësëm la ñu ŋànkoon teg nañu ko ci suuf jamono ji nag danañu woyal paj mi gannaaw bi nga xamante ne jot nañoo gisee ak kii di président Macky Sall gannaaw las yéen kaay beneen yéen kaay muy le quotidien yéen i ma euh, Madiambal jaañ bi daal di xëy tamit ci ñaari mbir yi nga xamante ne moo xew démb ci réew mi ba mu njëkkee mooy mbirum xalifa sàll ak kii di Karim Wade ne ñu ñaari kaay yi ñoom yóbbu nañ leen ci suuf muy Karim ak xalifa ndax ñoom seeni dossier daal li ñu laaloo ak mbirum yoon ak daan yi ñu leen daan moo tax ñu seppeegum leen jamono ji ci mbër yi war a bokk ci jongante yi njiitum réew yi yéenekaay bi noppi ci Karima xalifa dem ci président Macky Sall nañu démb mu nga doon dox ci li nga xamante ne moom mooy train express régional dalloo na ko waaye nag balaa ñu train bi di daw dëggantaan faaw juróom benn weer ñu mën a nopp noppi li nga xamante ne mooy liggéey ba ñu ca sumb gannaaw ko Le Quotidien yéenekaay Les Échos moom it dafa xëy ci jàmmaarloo yi nga xamante ne moo amoon démb ca ngoon foofee ca Sacré-Cœur ci diggante ñooñu Khalifa Babacar Sall yi ak takk der yi ñoom ñu ne duñu seetaan benn yoon jongante di am ci réew mi te xalifa Ababacar Sall du ci rekk daal di bokk yéenekaay bi nañu ndaw yi Grand Yoff ak jege ñaale xalifa Sall yi démb jàmmaarloo nañ bu baax ak way takk deri libération yéenekaay tamit dafa xëy ci mbirum conseil constitutionnel yéenekaay bi nañu lu tolloo tollook ñaar fukk ak ñaar ci ay mbër ñoom la ñu seppi ci rek euh, lii nga xamante ne mooy liste euh, présidentielle yi lan moo tax ñu daal di leen ni rek euh, wàcce libération la cay lañ yépp xëy na tey daal di ñu koy jukkil si ñaar fukk ak ñaari mbër yooyu ñu gàntal seeni dossier ñu rek daaneele li gën a fës ci bopp yéenekaay yi ak sunu làmb yéenekaay làmb ji tey jox kàddu Balla Gaye 2 moom doomu Double Less bi ñëwaat tamit ci digganteem ak Modou Lo gay nag nee na moom li mu liggéeyoon xajul benn yoon ci bopp Modou moo tax mu ñëwee rek mu daal di ko koy sottil leneen lu yéenekaay bi xëy tamit bokk na ci Gaston Mbengue mi nga xam ne moo tëggoon làmb ji sunu làmb nañu ab plainte daal mu ngi koy yoot ñan dugal plainte boobu jagleel ko kii di Gaston yéenekaay bi xëy na ci waaye tamit leneen lu nit ñi di ruumandaat sunu làmb xëy na ci muy diggante kii di Modou ak Eumeu Sène ñaari wàll yépp xam ne nañ ne jot nañu avance ngir ñoom ñaar daal di sëgg bëre ci njeextalub saison bi yaay booy mu mel ni yéen yi tey loolu bokk na ci li nga xam te ne moo ci gënoon a fës tey ji am na solo. Mhm. dafa mel ni conseil constitutionnel bi coow li topp na ko de. waaw coow li wàccagu ko ndax xam nga ne ñëpp moom lañ doon may seen i gët fan yi mhm. mu soxal mbirum présidentiel yi ak kandidaa yu bëri yi. coow li nag gën na koo topp démb gannaaw bi mu eh, bi mu nee ñaar duñ ci bokk ndéegum mhm. muy xalifa sàll ak eh, kii di Karim Wade ku nekk xam na leen seen taxawaay ci politique bi ci Sénégal Karim moom mooy candidat. parti démocratique sénégalais waa PDS nag ñoom taxaw nañu nee nañu loolu xel xalaatu ko présidentielle du am ci réew mi te Karim bokku ci naka noonu tamit ñooñu xalifa it noonu la ñu waxee. dëgg la rafet na TER bi it xam naa ne moom comme fii juróom-benn weer lay tàmbalee daw. waaw waaw fii juróom-benn weer liggéey bi dina daal di yemb bu ko defee nag ñu mën koo ubbil askan wi ñu mën di ci dugg démb nag président da ko doon dalloo maanaam rek euh, réceptionné ko comme ni ñu koy waxee. Mhm. moom la doon def démb mu dugg ci nag mu jëlee ko jam ñaajo indi ko ba fii ci kolobaan mhm. fii juróom-benn weer lépp yemb comme ni ñu ko bëggee askan wi mën di ci dugg ñoom tamit comme ni ñuy duggee ci oto yi di jóge jam ñaajo di ñëw Ndakaaru. Mhm. Ah, am na solo ñu ngi lay jaajëfal di la ñaanal kenn ak jàmm te di la wax ne ñu ngi lay xaar. léegi léegi lay doon incha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf kooku Roqaya ngoom la sama doom ñu ngi koy jëfal di ko xaarandi mu ñëw léegi ànd ak ñun ci biir euh, ndénkaan kon ñu ngi leen di euh, tatagal di nuyu ki nga xamante ni nag moom mooy oustaz Birama euh, gannaaw bu ñu ko tatagalee laaj ko gis-gisam ci li nga xamante ni moom mooy ëttukeelukaay li ñu indi ci revue de presse bi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 yaay booy xam naa ëllëg rek incha allah moo fi wuutu bu neexee yàlla incha allah. Mhm. di nuyu yaay booy jarbaatu président <laughs> di koy yaayu yaayu Mouhamed. Ah? Mhm. xaritu président itam waaw. ak Marème Faye Sall di ko nuyu bu baax sama yaay bopp la nag wax dëgg yàlla ak lu man di am itam sama yaay la. kon de yaa ko def ko mu nekk sa yaay parce que moom dafa tàllal loxoom jur ken yëkkati ne rek laa fi jur. déedéet ma ne ko nag ñi des kon bàyyil man ma jur. mooy ah Oustaz Mouhamed waaw Oustaz Mouhamed moom mooy soppeeku ñëpp macha allah moom moom ñëpp ko sopp mooy taw comme xam nga boo dee yaay da ngay da ah, kon da bëgg ma ñëw ci yow bàyyi ko. non ah, non non nekkal ci moom kay mais man dama leen boole yéen ñëpp njaboote mais moom moo leen boddi waaye man boddi. macha allah xam nga Oustaz Mouhamed dafa doon ne si turandoom. soppi soppi ñëpp tabaarkàlla war a daal. yaa dàq suuxlu fii. <laughs> mu may ruube. mu may ruube ci suuf. dama lay fay sa bopp rek xam ruube. déggoo li ma la dama ko ba pare nag xool ko bët baax na gis nga def. <laughs> di nuyu ki nekk sama wet mm. euh, di nuyu ñëpp. ah waaye. waa ma ne. ki des amul tur sa wet noonu. Badiane Badiane Louise. waaw waaw egg ci ah, Badiane Louise kon man ni. balaa tur bi ay tànnaas rek tax. ma nuyu Badiane ma nuyu Badiane Louise xam nga bu may wax Badiane Louise dafa am sama xel ci ku muy dem mooy tax du ma ko mën a tooñ muy Seyda Zeynab ndax moo la tuddee bàjjan di ko ñaan yàlla na xippee aljanna eh, yàlla na gannaawam woyof comme ni comme ni waaw yàlla na gannaawam woyof daal ci ñaanu wolof tabarkàlla di nuyu mboolem ñi nga xam ne mhm. ñooy seetaan aussi ndénkaane eh, nuyu waa Nguufat ak Jolof doo ko dem Kaolack ak Louga. du dëgg kër Mbargu bala ñaan. loolu moom loolu moom Kaolack moom. ah waaw loolu moom yi fa moom léegi naa ko wax bi. Nguufat kii ah. Nguufat ak Louga. dem Kaolack. doo dem Kaolack am lu tax may tudd Nguufat Nguufat dafa nekk dëkk bu dëkk bu ndaw te rëy. Uh-huh. fu mu ne. mi ngi biir mi ngi Njàmbur booy dem ah. boo jëmee boo jëmee boo jëmee Léona. boo ah. jugee Louga boo weesoo Njamb Fall tuuti rek. ngay jàdd à droite. mooy seen pays mooy seen dëkk. mooy sa sama cosaan mooy jolof waaye foofu dama fa nekkoon. doon fa nekkoon fa. Euh, moniteur de moniteur de collectivité éducative. Euh, en tant que enseignant arabe. Mmh, yoon euh, góor gu ñuy wax Balla Diop ak njabootam ñu waaye dëkkale bu am solo daal. dama leen di invité yéen ñëpp ngeen dem Ngoufat. incha allah macha allah ngeen dem fa. maa ngi ziyaar ñëpp nag. xëy na revue de presse bi li ñu ci wax rek. Ah, mooy li ñu daan wax toujours. Mmh. mais tey dafa am nag benn publication bu ma gis démb. mu am lu may inspiré. ci wàllu euh, résultat euh, conseil constitutionnel bi génne ci cinq candidats mhm. xam nga Macky Sall la ñu wax. léegi du wax président Macky Sall la. Mhm. ak Idrissa Seck. Mhm. Madické Niang Ousmane Sonko ak. Euh, Issa Sall. mais waa ji def ne Macky Sall daf koy xoolee comme élève bi nga xam ne goûter bi muy goûter rek moo ëpp salaire professeur bi moo tax amul droit di ko jox note bu baaxul. ndax alaa kulli xaalin. mu ne bu dee sa Seck mooy genre élèves yooyu nga xam ne dañuy jàpp ne ñoo gën a yeewu ci classe bi mais heure bu ñu demee compo rek wala bu ñu demee examen. jël ndaare jël bu dee Ousmane Sonko mu ne mooy élève bi nga xam ne dafa teel a dem jardin. sonal loolu waa école ba nekk waaye bu mu toll ñu ne ko yow booy fii sama morom nekku waaye heure bu demee nag mu tonal leen ndax tiital na leen. bu dee Issa Sall mu ne mooy ki nga xam ne bi mu ñëwee si école bi yàggul dafa sérieux lool bëriwul coow. waaye heure bu ñu compo moom mooy joxe joxe copie bu dee Madické Niang nag moom grand commençant la mën na am surprise man na am àgg fu ñu ko xaarul mën na am itam du àgg fu ko doon xaaree. Mhm. waaye yooyu benn benn gëstu la bu benn mbokk binde mhm. mais booy xool euh, bu dee si wàllu teer bi yaay yàkkamti ko la gërëm. Mm. warul tax ngay digaate. Mhm. te yekk bu ñorul. boo ko xëppee yàq dugub boo ko lekkee sa biir daw. moo tax euh, man xaw ma président la lay yàkkamti bay inauguré loo xam ne six mois après lay doog a fonctionnel loolu wax dëgg yàlla. tonton Fallou waroon na fi nekk tey ñoom waa logique. mënoon na xaar tuuti daal. waaw ah, Fallou Fallou waroon na fi nekk tey daal vraiment. ñoom waa logique loolu xaw ma ñun xamuñu lan moo nekk ci biir wax dëgg yàlla ndax bu fekkee ne mbir buñ buñ boo demee si tailleur jox ko sa tucu ne ko ñawal ma nga ñëw mu jox la benn loxo ne la essayé loxo bi kese nii manche bi ne la essayé xam nga loolu kenn xamul lu muy firi. dafa la war a jox yére bi nga sol. bu fekkee am na looy def looy bëgg na ko fii defal ma fii retouche te sax tailleur mën a ñëw boo solee warul am waruñu woon a inauguré loo xam ne six mois après wala sax dana ko ëpp lay doog a fonctionnel loolu moom euh, sama yaay ji mi ngi <laughs> man dama xalaatoon ne peut-être doomam la xëy na ak ci élection yaa ngi ñëw boo xamul ndax dina ko fekkam déet. mu ngénte mu ngénte doomam bala muy dem. la fekkee moom. afin ñëpp dañuy posé wu question ak jàmm ak salaam da ko fi fekk ak jàmm ak na ko yàlla na ko fekkee ak jàmm ak fekk ko ci biir nguur gi dina ko fekk ak jàmm ak salaam moom lañ koy ñaanal jàmm ak salaam waaw kon mm-hmm. ah, moom moom yàlla ko fekkee ak jàmm yàlla na ko ñëpp fekkee élection yi jàll si jàmm beneen bi ci des tam foofu lay jeexale mooy euh, ñi ñu rekaale ñi nga xam ne ñi ngi jàmbat li ñuy jàmbat nañ ko jàmbatee fan ko war a jàmbatee mais tey booy xool Dakar dem dikk yi dawul ndax démb wax nañ ne yàq nañ seen juróom benn juróomi biis ah, moo tax tey aussi euh, tey dañoo xëy jàpp euh, téye seen i yoxo oto ñoom seen i oto demuñu dikkuñu loolu tam wax dëgg réew mi war na passé foofu. dépassé woon nañ ah, foofu war nañ dépassé foofu daal wax dëgg na hmm. hmm. maa ngi nuyu kii door a egsi noonu. kii door a egsi Rokhaya Ngom la sama bébé la. ñu ngi koy ñaanal jàmm di tatagal yoon sañse bi na. <laughs> jërëjëf yaay Rokhaya nuyu la. nuyu naa la yaay booy. Hmm. Euh, nuyu mbokk yi safoo ci waxtu wi ci DTV. nuyu sama yaay mère Thiama. nuyu bàjjen Louise ah, nuyu ko moom mi nga xam te ne moom laa jàkkaar lool tey ah <laughs> sama ustaas la defal ñaan sama doom yi la yu baax yi di xaar ci ñoom ziar lu bëri am nañ dañ koy nëbb waaw <laughs> bàjjen Louise nee na tuf tuf kon nañ leen amin <laughs> ah, ustaas Birama nuyu naa ko ziar naa ko lu bare bare bari ah, nuyu mbokk déglukat yëpp di amaan mbégte bokkaat ci plateau Ndenkaane jërëjëf jërëjëf nee na tudd Louisa waaw ñu ngi lay ziar di ziar ki ci wet bi. Mm-hmm. waaw kon noonu ah, baax na kon ki ci wet bi nuyu nañ la. waaw di nuyu monsieur mm-hmm. <laughs> ci kaw nag. nuyu mère Thiam baax di nuyu. yokkal baat mm-hmm. bu baax di nuyu mère Thiam. <laughs> mayte maa bay. <laughs> c'est que dama mën tànnaas xam naa lu ma wax non donc si revue de presse bi rek may wax si. nee euh, ko kan lay dosé. neen dama bëri tiita yow lay charmé xam na ne man bëriwuma tiita. non non dafa naturel ma sha allah. xam na ki muy dosé kay. bàyyi ko mataar lay dosé. wa mais mais kon bàyyi ko mu dosé mataar dosé ko ba mu doom. donc météo bàyyi ngeen def. bàyyi ko donc ñu dem ci revue de presse bi. Mhm. euh may wax ci terre bi. waaw je pense que ñun xamatuñu lu muy ndirool quoi. lo xam dans 6 mois lay fonctionner quand même vraiment. euh, est-ce que Sénégalais la ñu bëgg a berné wala la ñu bëgg a nax wala xaw ma nu mu demee nii parce que loo xam ne dawagul nga inauguré ko léegi léegi parce que yaa ngi xalaat ne élection mi ngi ñëw bëgg nga inauguration bi nekk sa tour kese. gis nañ tamit euh, yooyu yàgg na fee am boo xoolee damay jël benn exemple bu ndaw pont Sénégal 92 bi ñu tuddee ko pont de l'émergence actuellement. Mm-hmm. dañ ko inauguré woon je pense mm-hmm. daaw la ah y' a un an. Mm-hmm. ou plus deux ans deux ans voilà ñu inauguré ko mais ba léegi pont bi parewul.

donc j'ai dit euh, ouvrier yeeg. Mhm. entreprise chantier yëpp dañuy def seen kéemtulaay mhm. pour jour bu président bi di mhm. parce que ñuy a une population bi de. le président bi la ñuy qu'on le dise. d'accord donc le président bi ñëwee euh, fonctionnement bi ci ouverture bi par nañ ci. bu que nous mosu fi am mais gis nañ ko ci pont euh, pont Sénégal 92 bi. ba léegi baaxul ba les voitures peinent à monter sur le pont ou à descendre sur le pont.

Euh, nañ jox léegi seen bopp matukaay yu ci war yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ba lii yemb ndax lii tamit euh, train la <coughs> lu bees la si ñun mm-hmm. euh, bu baaxul bu ñu ko defal lu mu war a fonctionner lu mu lu mu war a mel rek mm-hmm. mën na jural population bi ay loraange yu bëri gis nañ ne yu bëri yu ñu ci waxoon garde fou yeeg protection yi yooyu yëpp bees na ñëwagul sax mm-hmm. te ay population yu ci yu fa jege dafa bëri donc nañu dimbali rek ak vitesse bu muy daw ak vitesse bu muy yooyu nañu dimbale exactement beneen aspect bi mooy euh, les recalés. Mhm. muy euh, Khalifa Ababacar Sall ak euh, Karim Wade. bon am nañ temps def recours. mais man de gëwuma ne seen recours dinañ ko accepté. Mhm. du ma yàlla duma ma yonent mhm. mais gëwuma ni dina am. et je pense que situation dëkk bi nu ñu nu mel nii on va dire beaucoup de soulèvements, mais je dis que conseil constitutionnel ou ou wala ñu nekk ci dernière décision bi. mieux mhm. pousser la population à manifester. Mhm. parce que nous euh, nit wala daw des ndax tamit effet yi finalement kenn xamatul lu muy nduróol. yàlla na yàlla def jàmm. yàlla na yàlla def jàmm mais bu kenn manifesté bu kenn manifesté ñaanal bu yàlla bu kenn manifesté yàlla jàmm rek xew ci réew mi. yàlla na ci armé woo seen carte électeur dem voter mu yëpp nekk ci jàmm mais tamit affaire yi mi ngi bëgg ëpp. mi ngi bëgg ëpp wax dëgg yàlla ñaaw na trop. merci Badiane Louise Thiam. naam. bu wàcceel tension bi tuuti rek. man dara yeegul de. waaw man jàmm rek laay waaw waaw non dama gis eh, ah, bët yi ngay xool. xale bi ba inauguration bi. waaw ku liggéey inauguré. janvier bi du ko inauguré février bi yëpp. de moom boo ko tuddee Fatou mu tudd nekk góor xam nga. waaw xam naa dafa non non. bàyyi mu tudd. doom bi ma tudd mu judd nekk góor li wax nañ ko accompagner rek mu yemb benn sama doom bi Roqeya. ñaan mhm. la mari ñëw te bañ a dóore. amiin amiin leen ziar bu baax. <laughs> dafa balaa may da daal damay ziyaare Balla Gaye bu baax di ko félicité. Mhm. ndax nee na li mu indi xaju ci Modou Lo. li mu indi xaju sax ci Yékini waxuma laa Modou Lo. Yékini def na Yékini xale bi kooku mu def nañ ko ba pare. Uh-huh. ndam yàlla na ko jik ak képp ko ko yónnee. amiin xam ne ne mbër la. boo bëggee ndam rek dugg a géej waaye Balla mention très bien chapeau. ñu ngi félicité. di ma gis fan yi rek nga sa kër. boo daan <laughs> sa bàkk yi nag moom la Sénégal gi yëpp. waaw man mer fe bëgg rek fecc. nee nañ ma caama moom xamuñu woon tànk bi nii la mel. la mu ngoog sama jàngal tànk gi ñoom nañ ko démb. <laughs> dama dégg ñuy naa si rajo bi tey ñuy wax population bi jóg. man de je ne le conseille pas. man loolu Ousmane Sonko moo ko wax ah. moo ko wax damay tudd turam. Eh. man conseil waxoon na ko. moo ko wax na ko mu ne nañ jóg waaw mais man conseil ma ko population bi. waaw mais nga boo jóg da ngay jóg yow. Mm-hmm. ànd ak sa askan ñu doog ci topp. mais toog fii naan na population bi jóg duñ ko def parce que ñun suñu xale yii dañ lay sant jàng ak liggéey. Mm-hmm. talu ñu nekk fi di xeex gis nga maman mm. gis nga nañ nit ñi di jóg. Mm. man loolu dama ko ragal. dëgg parce que kuñ ci rey. Mm. sa waajur mooy perte ku ci feebar am lu bon lu la dal mm-hmm. sa yaay moo lay faj ak sa papa mm-hmm. moom mi la ni jógal du la faj même bu dee président Macky saal mi su waxoon ni sax li ma koy bëgg-bëgg mm-hmm. su ne woon tey nañ jóg xeex ah est que waa kër la ñoo xeex ñi dem di xeex ku ci feebar ku lay faj mais ñun suñu xel dañ koy indi ñu fi faatu woon fan la mujj <clears throat> ñi fi gaañu am na ñu ne ci kaso ba tey depuis ci taw Ablaye Wade ana Ablaye Wade ana mu tey ana Karim ana waa PDS ñoom ñu ci kaso bi. Hmm. seen yaay du yóbbu añ du yóbbu rek am lu leen naqare leen gis. dama ne man politique jarul ñuy wax nañ def soulèvement soulèvement ci am réew baaxul. jàmm la yàlla. Ah. yàlla man jàmm laa bëgg. Uh-huh. jàmm la ñu woote. président Macky Sall mi yàlla moo ko fi teg. Uh-huh. yàlla moo ko fi wàcc te yàlla bu mu wàccee wàcceegul léegi ci kàttanu yàlla. amiin yaa ngi dégg. Mm-hmm. nit ki day nangu dogalam Ousmane Sonko xale la man je le sais bien. xale bu tuuti la mm-hmm. mais waru taxaw naan na su nañ nañ na population bi jokk élèves yi ñu ne xoolal bus ñu taal. Mm. Macky Sall dugg ci. man ci bus yi laay dugg di. vraiment war nañ dépasser sama doom ci bus lay dugg. Mhm. président duggul ci bus yi. ay njabootam dugg si nga ñun. man bu ñu amul esprit boobu du toj bis loolu ñun na rek bis bu tojee. Mhm. mu nekk fële. ñoo ciy dugg de. ñoo ciy dugg ñoo ciy dugg de. ku amul oto sama zaa nga xam ne dañoo dugg puusal ma toog ba zone. wallaay ñoom ñooy sonn ak suñu njaboot. moom naka duggul ci bus. Mm. doomam dugg ci. Eh. jabaram dugg ci même su wàccoon tey. yàlla même ñooñu di poussé nit ñi à ce que ñu ñu ñu toj bus. dugg ñu ci bus yi c'est vrai Ousmane Sonko dafa dugg bu Bougane gi Dany mii di wax naa soulèvement nañ dañoo dugg bus. Mm-hmm. dugguñu bis xale yi yeewu leen indi seen xel yi te ngeen bàyyi ñii di leen fowe gis naa ñuy taal Sacré-Cœur démb mm. booy taal si koñ policier ni la ñëpp jël la yóbbu la am nga problème eppi li nga ci xamul mooy dañ dépôt lañ lay def. Mm-hmm. non gis nga nit ñi man man man man dama xamul ndax yeewu man du ma xeex. Mm-hmm. du xam nga luy luy xeex bi li Gilles wax. li sama carte baa ngi nii. d'accord Macky Sall neexul dama ko may naa ko may ki ma neex. mais pourquoi may dem di taal. Mm-hmm. am na solo yaa ngi dégg. waaw terre bi ñuy wax def dañuy essayé dañ koy inauguré ba mu neex. oto da nga gis ku am oto di ko roode te dawal ko ko dawal ko ay 100 kilomètres.

non non non je suis pas d'accord non non moom président non non defal naa président discours 31 décembre mu fi. kon discours Demba mu fi. le 14 je vais réceptionner. ok terre bi dina non, ah, non. Non, non, non. Non, non dafa réceptionner daw inauguré gu. kon interprétation mon baaxul. ak titre bi journaliste yi. utilisé nañu dafa inauguré parce qu'ils ils ont fait des cartes. non non non mais président inauguration inauguration lañ ci def.

yeneen d'accord ok réception d'accord Sénégal mbirum sëy dafa soxal loolu xalé yi jigéen yi loolee tax sax ba dina len jaxal lu nekk fépp fo xamné ni soxna yi gis nañ fa lo xamné day neexal seen sëy dañu ciy dem lolé tax sax ba faatu si di leen jàppale. waaw dama jaay euh, ay astuces de femme voilà comme genre ay lingerie di jaay euh, ay huile de massage des gants de massage. di jaay di joxe di def aussi euh, appartement voilà appartement loué avec jacuzzi yooyu yëpp dañ koy def lépp loo xam ne daal day neexal sëy lépp loo xam ne madame su ko defee monsieur mun na kontaan bien que monsieur bu ko defee madame kontaan. jonge bu ëpp tamit des fois mun na jural jigéen ay jafe-jafe mu mel ni si ay infection wala sax wàññi seen góor a jëkkër. bu bëri baaxul si góor vraiment. waaw mante bu bëri moo baaxul si góor chaque jour dama koy appuyer ak ñoom les cristal exemple nga jël kari karité jaxase ko cristal lu weex la nga mante bi bëri bëri loolu baaxul si góor comme euh, cube yi ñuy bañ temps yi ni mu kiiwee si góor mante bi noonu la bonee si góor ak lu sedd ba mu ëpp tamit baaxul si góor voilà day wàññi euh, ngóor a ngóoraam voilà comme glace exemple yaa di fii dañuy bëgg utiliser glace di def si seen sexe jëkkër conseil yooyu noonu ñuy daw yooyu parce que day wàññi ngóor a góor vraiment yooyu médecins yi dañ si parce que liggéey bi dama siy traité bu baax lépp lu may jaay laajte si ba am lu ma leer doog leen mën a jox parce que tamit plus de 2000 et quelques numéro loo leen wax loolu la ñuy def ñàkkul ne 300 yoo xam ne lu ma dugal ne lii def leen ko rek dañuy def kon na nga war a xool bu baax li nga leen di conseiller pour ñuy bañ a am ay infection en général foofu fekk ñiy def mélange yooyu di ko jaay et tout ñoom ko utiliser ça je le dis haut et voilà comme ñu jël karité bi di ko jaxaseeg mante ou bien nga jël exemple am nañu dañuy jënd ay tàngal tàngal mante yi jaay si bitik yi seeyal ko toggal ko seen bopp yooyu di ko utiliser yooyu baaxul ñoom boo def sa nga xam da ngay def baaxul parce que lu jëm si sexe warul nekk fu fu am air parce que poussière microbe fu lay jóge te loo xam ne yaa ngi koy defar te leer na ne microbe mu fay dugg loolu baaxul si sexe góor am si yow aussi parce que góor gi su amee wala mu am infection da la koy wàll. vibromasseur yi tamit soxal na leen loolu ci biir réew mi booy xool léegi jigéen ñi bëri dañu koy jëfandikoo te duñ ci xalaat sax jafe-jafe yi nga xam ne mën na leen ko jural. habitude la boo xam ne bëgguma ñu ko jigéen di ko tàmm wala góor di ko tàmm parce que li nga xamante ne nii ça vibre yaa koy conditionné yaa koy teg fi la neex rek ba heure bu la neexee donc loolu su jigéen bu demee ba tàmm ko. sa jëkkër mënatu la satisfaire te loolu baaxul tamit nga nekk ak nit ngeen di sëy li mu lay def doy la su demee nga xëcc sa vibro di ko utiliser moo tax du ma leen ko tàmmal du ma koy jaay je veux que ça soit naturel ñuy parce que yooyu baaxul du may jaay yooyu daal en tous les cas benn machine laa am comme muy vibrer te pour massage day aspirer fatiguement voilà massage électrique mais lépp loo xam ne day vibrer jëm si sexe bugguma di koy jaay parce que dañuy dem ba tàmm ko mu nekk drogue si ñoom te te c'est pas bon day day féewale couple faatu nag yemu rek ci jaay ay feemu jigéen waaye tamit da ci boole di leen di xelal. waa vie de couple bi mais surtout la confiance au fait chaque jour dama koy kii ak ñoom parce que chaque jour dañuy ñëw reproché faatu sama jëkkër bu ñu toogee message yi day bëri dañ koy woo dañ koy damay appuyer que ñu bàyyi seen téléphone jëkkër loolu mooy gën a indi problème téléphone am sonné rek nga daw yërlu wala nga dem xool parce que ku xool gis. Euh, te yow boo bëggoo mu laal sa téléphone bu laal téléphone am voilà da ngay sëy ay confiance en lui parce que su la bëggul woon ma yaakaar naa ne du la takk indi la si këram te wujje bi aussi mënuñu ko bañ yàlla moom moo ñaale góor que am ñeenti soxna moom mi ko def xam na di tax donc mënul ñàkk góor am benn sa morom mu am moyens yi may ko ko sa morom ñëwaat mais nga jël sa jëkkër fatt ko toujours des problèmes boo taajee lekk bi yaa ngi xuloo pourquoi woo naa la heure bi jotuma la détail te góor tant que yaa ngi koy xañ jàmm rek moom mu ngi mu ngi lay daw en fait. merci Alain merci Mayta ci élément bu am solo boobu muy femme et femme

élément bi important na parce que soulevé na si ay quatre ou cinq thèmes. Hum. cinq euh, points yoo xam c'est très important. Hum. bu ci ñëk euh, mi ngi wax ci yi muy yi muy Sénégalais yi bëgg ko trop. Sénégalais yi légui gis nañ né lu sax yàgg na Sénégal ndax euh, jigéenu Sénégal ñëpp xam na ne. ñoo jappé góor yi ay bébé. Hum. dañ leen di topoto lépp luy neexal nekk ñu ngi ci. mais légui nag dafa commencé débordé débordé bi mooy dañ ciy boole li ci bokkul <coughs> bu njëkk ba jigéen dina jóge mais jonge bi da koy attiré ci set. Mhm. ci xeeñ lu neex ci wax nank ci dox nank ci déggal jëkkëram. Mhm. léegi tendance bi dafa renversé wu. léegi jigéen di ñu jàppee jonge. Mhm. Euh, ngéwéle. mercaam nga baal ma noonu laa ko mën a exprimer. Hein? ñu ko jàppee ngéwéle jàppee ko euh, ay produits pour ñoom da ngay jël ay produits def ko sa kanam. Hein, de, ay, waaw sexe exactement c'est-à-dire que avant c'était la douceur mm-hmm. euh, respect bi nga jox sa jëkkër yooyu moo nekkoon jonge respect bi nga koy jox sigil bi nga koy sigil su amé gan sigil bi nga koy sigil ci kanamu nit yi voilà regard des autres compréhension bi mm-hmm. hein euh, fina côté finance tamit nga koy soutenir loolu moo nekkoon jonge mm-hmm. mais légui dañu jël jonge lépp def ko mu nekk ci sexe kese et c'est ça qui fait que c'est pas sans conséquence parce que li la war ci sey bi lu bari dang koy bàyyi

ñu ne mélange kenn mooy jóg fee ne mélange bi baax na rek boo ko defee sa awra mu gën a mu gën a tëju ñu baal ma ci kàddu bi noonu laa ko mën a waxee mm-hmm. Mm-hmm. ñu jël def mm-hmm. sans xool test bi sans xool ko sans xool ndax wala sa morom def na ko rek nga ne def na ko am mu ñëw wax la ko nga dem def exactement lii day neexal ñu def lii day fluidifié day day lubrifié ñu def lu nekk jigéen yaa ngi koy def seen seen seen kanam yi ba tax faatu wax ko euh, di wax ne ñuy xool bu fekkee am na lu ñuy def ñuy xool bu baax am na ay produits bio

introduction bi duggal moom eh, exactement exactement donc pour bañ a dugg ci ci ci détails yu bëri mm-hmm. euh, baaxu ci beneen aspect bi mooy euh, da ngay jóge ba jural sa jëkkër ay jàngoro ñëpp xam nañ ne Sénégal mm-hmm. góor yu fi impuissant bëri na torop léegi mm-hmm. ñu ci bëri ñi ñi naan dañoo teel a foo dañoo def lii mais du loolu seen jabar yi ñooy bëgg def lu baax def lu baax def lu baax ba dugal leen ci guuta Mm-hmm. et c'est vérifié. Mm-hmm. da ngay gis xale bu ndaw am problème de sexualité mu ci di góor. Mm-hmm. fekk ne moom mii foog ne moom moo am lu mu moom moo feebar moom moo am lu mu matalewul moom moo def lii moom moo def lii fekk na du dara feem yu jabaram di utiliser mooy dem di dem di dem. ëpp ba rendre ko impuissant mooy parce que ay mante bu bëri ñëpp xam nañ jigéen ñi dañuy utiliser mante trop. -hmm. Fatou wax na ko baaxul ci ngóora day wàññi ngóora bu baax considérablement te suñu produit ñuy def si si ñuy defee ci sëy yépp neexal sëy yépp bo xolé la plupart chocolat ak menthe karité ak menthe euh, euh, yenen bi ay feuille de menthe lépp menthe la mhm. beneen aspect bi tamit dañu jël ay tendance yu bees comme glace yu ñuy utiliser doy na waar. non baaxul xale bu góor jigéen buy tëddee mi ngi jot powu glaçon bi yóbbaale ci biir néegam yooyu voilà exactement exactement day wàññi da ngay xool dañuy naan góor yi bu seddee sax mhm. dañuy am problème asantuma nga jël glace sidit la rek waaw exactement nga jël glace di ko def sa awra jëkkër yooyu yëpp ñu xoolaat bu baax jéem a jël suñu ay valeur yu avant mhm. man je pense que jigéen bu setee xeeñ lu neex wax nànk neex deret bi nekk fi digg bi nekk fi kese hmm? doy na sëkk ngay ruyee ko fonde fonde exactement exactement hmm. man pour man jonge bi feneen la donc ñuy bàyyi bu baax raxas daal ba mu set raxas ba mu set waaw moo gën a wóor beneen aspect bi tamit point bu mujj bi hmm. mooy mi ngi wax si euh, motif de divorce yi léegi communication bi doxatul mais lu ci ëpp lël mbëj la dañ kumpa dañ kumpa lël mbëj ñuy wax ne ma mère mag yi dañu doon wax ne kuy seet di nga gis. wallaahi kulli xaal nañu toog. Mhm. bañ a xool. parce que ñu si bëri Sénégal ñu bëri bëgguñu xool seen téléphone. Mhm. genre Louise nga xam ne bëgguñu ko xool seen téléphone rek ñooy xool téléphone seen jëkkër yi rek. dëgg la dëgg la ñoo sëb dañ ko bëgg relation bu ci confiance amul du dem. exactement donc ñuy bàyyi xel loolu yëpp te di remercier Fatou encore bu baax. am na solo nga xam ne am na joxe na fi ay conseils yu yu am solo. Mhm. am na solo Roqe dégg nga élément bu bàjjen Louise boobu yaakaar naa bàjjan lu mu wax am na solo gannaaw bu ñu nuyuwaatee ñëpp. Mhm. Euh, xam nga ni mu ko waxee. Mhm. bëgg maa mën ba tax nga yóbbu sa bopp feebar boo xamante ne tey jii euh, bëri na laal na jigéen ñi. Mhm. feebar bu ci mel ni li nga xamante ne moom mooy cancer. moo xam mu nekk canceru butitu njurukaay wala canceru ween mu ngi ravager ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéen ñi. Euh, mën na am léeg-léeg ndogal lay doon mais day fekk ñu sabablu ko ndax li nga xamante ne moom la ñuy doxale hmm. comme ni mu ko waxee nit mën nga téye sa borom kër téye sa kër gere ko te doo ci exagérer doo ci ëppal mais léegi nag nëbbootul mhm. nëbbootul ñi dugg ci néegu sëy yi dañ koy def ñi nga xamante ne ñun ñi nga xamante ne duggaguñ si sax dañu koy gis niñ koy exposé ci mbedd mi mhm. donc koo waxal ñaari baat ñetti baat ñun la ak yaa ngi fii mhm. donc euh, ñu mu nekk li nga xamante ne dañ koo mettre en avant dañ ko jiital ci biir néegu sëy te alors que euh, mënoon na mujjee ñëw wala sax mënoon na ñàkk dëgg la jamono buy dox da ngay dox comme ni ñuy waxee kenn ku nekk ni ngay toje sa bopp sa jinax mm-hmm. waaye tamit am na loo xamante ne musiba lay doon mm-hmm. ndax eh, professeur Gawsu Samba bi ñu ko fi invité nee na góor ñu bari dañoo feebar te si seen fee si wàllu sëy lañu feebar mm-hmm. te ay xale lañu te xale yi ñoom ñooy dugg ci néegu sëy yi léegi lan amaana sax bala ñuy dugg ci néegu sax yi fekk na sax ñoom lépp testé nañ ko ci biti def nañ ko ba bu ñuy dugg fekk nañu jeexal mm. donc recours bi ñu mën a def mooy dem jëli ji li nga xamante ne mooy aphrodisiaque yi nga xamante ne moom la ñuy utiliser ak euh, ñi nga xamante ne noonu lañ ko def te nañu wax leen nit ku ñuul dafa ëppal mm-hmm. amaana bu fekkoon ne li nga xamante ne moom la fi euh, faatu lim yépp mm-hmm. dëgg la mën na faj mm-hmm. mën na jàppale nit mais lu ëpp rek dootul amati njariñ parce que bu buñ ne la woon da nga utiliser benn nga ne dama bëgg lu neex ma utiliser ñett wala ñeent mm. bu boobaa dootul amati njariñ donc te yaakaar naa jigéen ñu bari noonu lañ siy doxale def nañ ci ay reportage tout le temps di gis ni nga xamante ne noonu lañ ciy defee li gën a metti mooy euh, koñ boo dugg wala marché boo dugg di nga fekk benn jigéen toog ci buntu marché bi mhm. yor taabalam boo ko rombee mu woo la wax la ci loolu nga xamante ne nëbbu woon la léegi dañ koy jaay comme ni ñuy jaayee ni gerte gi mel ci mbedd mi mhm. donc foo tourné di nga gis benn jigéen bu teg taabalam teg ay pañeem naan la lii ak lii ak lii ak lii dem ba li nga xamante ne kumpa woon léegi dafa nekk si mbedd mi donc je pense que jigéen ñi war nañ si gën a bàyyi xel euh, war nañ gën a bàyyi xel tam ci seen wér-gi-yaram te xam ne euh, yu bari mu ngi leen di dal Euh, ñoom ñoo ko sabablul seen bopp ci kenn newul kenn nag bul def li nga xamante ne moom mooy neexal sa sëy mm-hmm. mais nga ànd ci ak dal mesurer li ngay def surtout surtout caama mm-hmm. mm-hmm. xale yi day dañoo yori feem suma uniforme yi dañ lay tëj sax <laughs> ñi yor feem yi de ci amoon baax nga ñii ñoo yàq sax réew mi feebar yi am ñoo ko indi man dama contre sax yii xam nga li wax am importance dañu foog ni jonge ak feem c'est le sexe rek xam nga mos naa am sama benn ñees boo doon def sama yaayam di ko wax yow da ngaa foog ni sëy néeg bi rek la jonge bokk na ci yar. am na ci doole nag. Hmm? Hmm? am na ci doole na ci doole. waaw am na doole te sa jëkkër lekkul naanu. <laughs> dina tili néeg bi am na ci doole nag. non xam nga lan la dëgg la néeg bi am na ci doole. Hmm. mais balaa loolu. non ah néeg moom mooy mais balaa loolu ma maa seulement xam nga sa jëkkër sa jëkkër. war na set benn. waaw war na lekk ba suur. waaw war na naan. comportement xelam war na dal. surtout. xam nga Cheikh naa day wax ni ñun dañu indi ay ñu pour suñu jëkk dallu ci ñun mm-hmm. mais ku xelam dalluwul naka lay demee ci néeg bi mm-hmm. boo fa nekk te doo nekk góor mm-hmm. te xale yu jigéen yooyu dañ ko banaliser dañoo foog ni sexe sexe sexe rek da ngay gis góor ñoo xam ne lekk ñu naanu gis nga set propre propre sec sa sa xel set sa yaram set sa yëre set rek premièrement mais néeg bi néeg bi dëgg la baax na mais am na man pour man néeg bi moo mujj. mooy ñëw position. kon dafa am lu man yii man yii gaw ma ko man yii man yii bu dee man su bu doon ci ma ci amoon benn part. Mhm. Fatou mii. Hmm. gaw ma ko gaw ma leen ñoom ñëpp. wax naa leen ko Fatou nag deful dara lu yàq nag. voilà mais non xam nga c'est important à souligner. a a def mais ay produits non. non dafay xoolal jamono jamono fi mu toll nii sax wax nii. ma ci woon ni la kan wax la. Mhm. sa sëy dëgg naa médecin dafa dof mhm. mais xale jigéen yi jël ko def seen kanam di ko def seen jëkkër ñu tax ñu yomb lu gis nga ñam bu sedd sax day tax góor yomb ñam bu sedd. ndox bu sedd sax. ñam bu sedd sax wala ko tegal góor <laughs> xam nga gis nga ji ñoom toggatuñ sax. day togg fukki bool def ko ci frigo bi. Mm-hmm. bu ñu tàngal moo tax ñu seen jëkkër yomb duñ togg mukk léegi léegi léegi defatuñ ko. te loolu c'est très important ak produit yi ñuy lekk aussi bokk na ci. li li li waa même pas produit sax. bouillon yi nga dalal nit nga dalal nit dalal sa jëkkër sax. Mm-hmm. dina ko may mu nekk góor dalal ko. Mm. waa mais affaire bi xel la góor mm, xel la mais yow ay ay jël baxal ay tàngal def lu kañ na loolu nit ku baax set rek doy na ci jigéen mais affaire cancer yi ñuy wax ak. ñoo koy ñoo ko teg seen bopp. te Lise mi ngi wax nañ delluwaat ci bio bio bu fi delluwaatee si côté. côté côté boobu rek. mooy dañuy dem ci ay ñoom ceeb. dem ci ay ñoom digg dem ci ñoom xaarite. Mhm. Ah, mhm. muy muy muy. asaf mais daa xew nii man. Mhm. àndoo ci waaw man man aussi bon. contre la d'une part naka laa ko contrer mooy damay défendre sama bopp. <laughs> mooy li nga wax nii man loolu laa àndal mooy mag ñi comme niñ doon defee bu dee pour aphrodisiaque la am nañu ay plante yoo xamante ni ñu ko daan defaree laa petit cola rek aphrodisiaque la ci seen soos yi am na ci ay épices yoo xamante ni sa naturel benn garab da nga koy def ci sa soos benn garab doo ko naan dañuy baxal ndox bu tàgg def diwtiir mhm. la naanal mhm. nga naan lu nekk sa biir yëpp génn ñun dañ jur ay doom fi moom kenn ko fi naanati nag mhm. mais diwtiir mbaa kaasu ataaya kaasu ataaya ko à Mm-hmm. da ngay wasin bees xëy ñu jël potu ndaa mm-hmm. def ci ndox bu tànn def ci karité nga gis karité bi seey ñu def ci ne la gëmmul naan nga soo gëmmoo naan mm-hmm. da ngay sant seral léegi léegi xaaral ñu jëliwaat beneen élément vox pop bi euh, Birama su ma ñëwee foofu nga doog a ñëw parce que affaire jigéen la bu ko defee yow boo waxee rek waxtaan wi day ndar kepp ma jëli élément bi dellusiwaat incha allah. sëy tamit xam nga dafa laaj dafa laaj ak saf safal daal ba ceeb tey bu ñu ko tegoon tey defuñu si defuñu si li ñu si war a def ceeb bi doo ko lekk. li maam yi doon sëy rek ñu koy def maam yi moom ni doon sëyee moom. maanaam dañ doon sëy correctement ak seen jëkkër yi. mais ay comme par exemple nouvelle génération bi ñu si def mais booy booy ut ay saf safal tam di ko def. mais am na conséquence ndax loo gis ci àdduna am na conséquence man gisuma ni lu war la parce que conséquence yi ñu indil moo bari ay infection la lay indil ay di nga ci jëlee ay problème yu bari daal naturel daal dara dàq ko ah, sëy tamit dafa laaj loolu tamit parce que ñaan dem di nekk noonu rek amoon dara lu ci lu koy xoromal biàggee dafay soof waa yàlla mi bind la def la xam la am na li mu def ci yow exploité loolu mais di yokk ngay def ay excès di indil yaa ngi man boobu dama ragal ay cancer feebar yu bon yi. jël du euh, ñu tuddati gowe bii di ko baxal di ko naan muy raxas seen biir man daal loolu laa xam mais ay saf-safal ay infection la lay indil foo toog di okkatu di xeeñ yooyu daal mu baax awa jërëjëf suñu deuxième élément ngi noonu dégg ngeen ko infection yi lay indi birama affaire de kii la de xam nga rek mooy loolu. Lise di leen comme ni <laughs> du ma ci wax ma ne mais ñun ñun dañoo ah, ci wax parce que ñun ñooy victime yéen a ko est que victime ngeen nga parce que dégg nga waa ji li mu wax mu ne non non sëy rek affaire yooyu foog ñu koy neexal. ceeb bu ñu dara am xam nga la xam nga bu njëkkoon maam da daan da daan fuddanu ba mu dër. njamu mm-hmm. mm-hmm. siñam ba mu ñuul. musóor waaw socc musóoru waaw wodd sëru ndënkam wodd sëru ndënkam mhm. jiital ay waaw ay eh, ah? eh. te boobu sax ci maam woon jaljale loolu maam la woon xam nga yooyu noonu yëpp loolu mooy li nga xam ne mooy li ñuy gis mhm. mais li dafa wax sànq lu ama am solo mu mhm. nga jongewu jigéen mi ngi dellu si na muy mel ak borom këram ba tax mu yilif ko façon de jigéen ñi baax ñëpp ñoo yilif seen jëkkër góor gu réew rek jigéenam moo tax mu réew nga mbër mi bàkku sax lan lay wax sa mbër mi buy bàkk lu muy wax daf naan sama yomb law sama naage tóor tóor saa gileem tukkal mhm. sama mboq sax sama jigéen jamutuñ kon lu may teree réew mhm. maanaam jigéen xam nga loolu ba léegi waxuma fi aaya waxuma xadis mhm. dañuy wax ci penc mi nga xam ne lu ñuy dund naka la jigéen doon mel démb pour mën a convaincre góor ci jikkoom ci melokaanam ba nga xam ne boo ko xoolee mu am lu mu yëngal ci yow boobu soxla wuñu woon ay kaanee ki tammaatee ak ñoomante du ma tudd yooyu ngeen di wax euh, Euh, waaye xam nga ko. non xam nga man ñëw ma pour wax man en tànk man. Mm-hmm. ndax su ma doon su ma doon wax en tant man am na loo xam ne mën naa ko wax mu jëriñ ñu bari. Mm-hmm. Mm-hmm. mais man dama dama judduwul bay jàngale. mais góor ñi nga fi tooga. voilà judduwuma bay jàngale li ma bëgg a wax mooy gis nga bu dee sëy. yàlla suñu borom dafa wax ne góor ak jigéen bu ñuy jaxasoo benn objectif moo war a tax mooy jigéen daluwaayu góor la war a doon. li tas taskunoo ilayha jigéen ban jigéen mooy dalal góor. suñ jamono tey jii jafe na nga gis ci jigéen buy dalal góor waxuma amul mais jafe na. Mm-hmm. du ci ñoom de mais li leen tënk ci penc mi li leen wër moo tax ñi dalal góor dafay jafe. parce que tey ndax ndaw si wax na ko yow yaa ngi xalaat foo toll yaa ngi traumatisé sa jëkkër ndax mi ngi waaj a takk ñaareel. Mm-hmm. léegi loolu nga def problème ba tax ñaar yow kii ñëw ki ñëwagul déjà yaa ngi wujj ak moom ba tax mënoo am jàmm. Mm-hmm. loolu aussi problème la. beneen bi itam na gis nga wàllu góor ngóor ak góor pour mu am ci sëy mm-hmm. am na loo xam ne boo ko wàccee boo boo wàccee maanaam saxaar gu daraaye mm-hmm. bul fa nekk di peinture rek nangam nañ ko tegalaat nañ ko tegaat si raay bi mm-hmm. gis nga Louise yaa ma gën a xam ne gis nga un toxico li tax mu nekk toxico mooy bu mu njëkkee drogué wu doos li mu amoon li mu yëgoon moom lay wëraat te dootu ko am gis nga sëy nag am na boo si am na benn excès boo ciy am da ngay dem ba mujj gi da ngay yëg ne yow mi yow ak kii doro yow yéen a yem. Mhm. parce que kenn dut la satisfaire. dëgg la moo tax mag ñi bu njëkkoon sëy dañ ko doon def mais nekk benn genre noppalukaay. wàcce yenn. d'accord nga def say ibaadaat ba pare jaamu yàlla liggéey nga ba am nga lu nekk ci yow loo xam ne dafa am foo ko war a serlo ji tàngoor wu nekk ci yow. Mhm. loolu noonu fekk lekk nga lu lew naan nga lu lew def nga la nga war a def. Mhm. boo jaxasoowee ak jigéen si anam bu doom ji juddoo fu mu jaar ñu joxoñ ko. mais ko xam bi nga xëy bi ngay yendu bi ngay teud sey ngay ligenti ligenti wo fi jikko sey rek sëy legi imagine tay Louise xam nga astuce de femme yi ñuy wax yooyu yëpp na mbiri jigen la mhm. mais imagine man ma bëgg a ak sama soxna ma ñew sangu ba set japp mom mu japp ma kabbar ji ko ñu wara a wara julli salatu tasbih mhm. julli ko julli gu tey mhm. kabbar ya tasbih ya yaanee sa aju dëgg la di julli te yëg ne boo paree da nga war a yi xëy na teewlu ko dana manqué. Mm-hmm. bu dee ndongo daara nga waaye itam nag moo ëpp yaakaar. Mm-hmm. bu fekkee yàlla rek ngay wut. Mm-hmm. bi nga paree yow ak sa soxna ngeen dem ca lal ba. la fay juddoo du nekk lu naan acam. mais Seyda Zeynab da nga koo waajal. waaw Seyda Zeynab yàlla na yàlla yërëm ko mën naa ko dégg ci 2STV mu wax lu ama am solo. mu wax lu mel ni lii moo wax yàgg mu ne boo gisee doomu defet yi ni mu ko expliqué mooy doom nga xam ne. nekku fi mais mën naa laaj wax ji. mooy doom ji nga xam ne ne mu sosoo ak fa mu sosoo dara baaxul. Seexuna daf koy wax te aaya alxuraan lay indi bi yàlla di wax naan fal yanzuru insaanu ila taami anna sababna al maa sabba loolu mu topp noonu doomu aadama la mu lekk mu nekk ci moom ndox jóge ci moom nekk fa mu nekk yàlla denc ko fa ba mu jaxasoo ak jigéenam mu génn ci moom dem ci jigéen gi nga xam ne itam def na la même chose doom jooju bu juddooyee lañ doon lekk ba doom ji juddu dafay dafa la tewu ci moom. dëgg la. am na benn théâtre kat bu doon wax naan wutin bi waaw wutin ba. Mhm. moo tax toujours bu ñuy wax parce que li ñuy def pour lan la lan a lan moo tax jigéen ñi di def yi ñuy def mhm. bu dee da nga bëgg satisfaire benn besoin sexuel bu benn minute après nga lor doomu jaamur mhm. euh, waa nekk fi te Ablaye Ndiaye doolu yëngatu aussi foofu la man dama bëgg toujours ni ñu xel dëgg la jigéen jigéen la benn plaisir cinq minutes yàq tuuti yàq xam nga jigéen tey xam nga woykat arab bi yaay dafa wax ne mhm. jigéen dafa am nu mu war a mel ci waxeen Euh, dama dégg Serigne Cheikh jant yàlla na yàlla yokk leeram maam ju baax jooju mhm. ma jeexale foofu mu wax ko ne bu ngi koy bu ngi koy jàngale maam jigéen nu ma war a mel xëy na loolu nekkul ne jigéen ñëpp koy mel mhm. waykat arab bi dana wax naan hay fa u muqbilatin agisa u mudbiratin laa yustaka qisarun minha wala toolu maanaam jigéen bi nga xam ne gàttul njoolul ah am na na mu mel tudd ay cër ci moom nga xam ne tey boo ko xoolee bu ko borom këram xoolee mu am lu mu yee ci moom mhm. mais jigéen na defaru na defar jikkoom na defaru moom ba xay na defaru ba ko xool mu am nga jigéen bu fekkee sa borom kër bu la xoolee du am envie ci yow hmm. leneen loo wut tamit du mën a am ci yow dëgg la am na solo bàjjan luy joxal ndénkaane bi ñu tëj buntu boobu jëlee suñu waaw ndénkaane bi mooy baal rek ma ñëw ci vibromasseur yi hmm. bu bu jigéen bi wax parce que dafa am solo hmm. euh, effectivement vibromasseur dafa dafay indi addiction xale jigéen nañ ko moytu bu baax a baax a baax a baax a baax parce que ku ko commencé ku ko tàmmale dootoo sa yëg nit. dootoo am plaisir dootoo am plaisir si nit parce que loo xam ne yow yaa koy. manipuler yow yaa koy commandé. ak góor booy sëyal nit booy sëyal. Mm-hmm. mënul nekk benn. Mm-hmm. dafa c'est très dangereux te addiction baaxul ci la dara. Mm-hmm. benn aspect bi tamit mooy góor yi. bu ñu bàyyee xel ci góor buy wax ci élément bi ñooy tax seen jabar yi di wut ay fem en fait parce que Sénégal lu jigéen ñi dugg rek lu wax Sénégal lu jigéen ñi dugg rek góor ñi leen ci dugal lu wax moom am na solo waay si jërëjëf kon dañuy ànd dem uh, jëli transition dellu siwaat pour dugg ci thème bi nga xamante moom la yëkkati di ko waxtaane muy thème bu am solo bu yaatu ñu dem dikk incha allah ci kàttanu yàlla jërëjëf mbokk yi kon Alhamdulillah, dañuy ñëw rek pour fàttali mbokk yi thème bi nga xamante ne moom la ñu yëkkati di ko waxtaane muy gàncatu bi xale yi jël léegi euh, tuddee ko mbaraan jaay seen bopp mooy production prostitution clandestin bi am ci biir kër yi xale yi tuddee ko mbaraan ànd ak ma Samba ak ma Demba ak yiñ ci jànkonteel ak yëpp roxee ñeenti far ñeenti far juróomi far laa ko mbaraan nag te bu nekk nga war koo satisfaire Euh, seen yëfa da ngeen. seen yëfa yaay sunu yëf la nu mu nekkee sunu yëf. seen yëfa <laughs> waaw dinañ ko nangu sunu yëf la waa parce que ñun sunu eh, jamono la tombeel seen morom jamono la tombeel peut-être que ni sunu yëf la. waaye euh, Mayra yaa fi dàq mbaraan dañ koo jox xale yi merci beaucoup <laughs> maa la ko wax dañ leen koo tooñ mais ñi nga xamante ne mos euh, ay ay ay ay femmes divorcées mm-hmm. lañu wala ay femmes veuves lañu ñu ngi mm-hmm. joué lu gën a garaaw le xale yi di joué. nañ ko waxee noonu waaye nag. dañ cee gën a fës. Mhm. xëy na dafa tolloog sunu jamono. da ngeen ko moomul nag. aussi waaw ko jël te moomuñu ah, ko mosul sëy moom bu mu <laughs> bëggee di. ku nekk nga jox ko wàllam dafay xaw a. mais ne tamit euh, nañ wax mbaraan nit ñi. Euh, bul tax sa eh. gémmiñ defal ah, naa yaa ngi wàcc kër gi. <laughs> yaay non non. Eh, yaay il faut ñu leeral. que ni neexul kat yàlla non non il faut ñu leeral que wax dafa garaaw de loolu faaw nga leeral ko. yow noppi say morom bi rek a poussé tax ñi nga xamante ne. ñoo bi def mais euh, nañ wax ne mbaraan rek euh, taxul nga joxe sa bopp. dëgg am ñaari faar ñetti fan ñeenti fa taxul ku ñëw nga jox ko sa bopp déedéet nit am na benn jox ko boppam nit yor na ñeent jox ko ci kenn boppam ba kenn ñëw jol ko donc du du patient que ne damay sel eh? ah ay rek ku gis nga lambi golo la ko gën a muus yaa ci <laughs> yaay damay wax sama sama mbaraan de man moom ñëpp xam nañ sama mbaraan fi mu ne am ah, ah yow koy mbaraan ah. ah ku mel bara bara ba alburi alburi moo ko sax dañoo bëggante ñun ñaar dañ ko ana ak sama ma yoroon fii alburi voilà donc ñu xam ne xam nga ci suñu naanal ku nekk Amérique yoru dara xajalal xale yi Amérique xajalal xale yi ñu dugg eh, ubbi buntu bi banaanal waa Amérique buntu bi nga xajal xale yi non non sama bët waa Sénégal la bara ah. ma ca ma ne waaw ba pare nga jox ko kooku dareem ñu xool. yàbbee ko gënal sax moom daa deful am wujjewul bu pare ñu xool ndax xaj na ci liste bi. moom moom daa wujjewul. d'accord am ko koy di la di la di la xoosati <laughs> mais en fait euh, ci li nga xamante ne moom la ñuy wax euh, ci mbaraan bi ñu jiiñ ñu ko. Mm-hmm. ah dañ koy nangu nag ndax suñu ndax ñun la. non ndax ñun la. mais ñun ñan la ci ñun. ñan la ci ñun. Euh, tey bu ñu nee diw day mbaraan comme si sunu langage ni ñu koy waxee sama ñaq mbootaay la naa ko lekk. Hmm? loolu lañ koy waxee ci suñu langage ñun ñi nga xamante ne xale yi sama liggéeyu ndey la sama ñaq mbootaay la. voilà mais euh, toujours est-il que rek bu ñu nee mbaraan nañu xam ne mbaraan ak joxe sa bopp c'est deux choses différentes bokkul mën nga am ñeenti copain te kenn xamula ci. man définition mbaraan définition mbaraan bi liñ ko bëgg liñ ko définir mooy. Hmm. Oustaz Birama mu ci liste bi. ah Alain mu ci liste bi. Junior mu ci liste bi. waaw Junior na ci nekk. waaw tey yëpp nga a mu ci liste bi. déet ñoom ñeent ci kër gi da ngaa jum. ñi ci kër gi rek man génn ma si man dem yaay. kon génne génn ma maa koy défendre da dugg donc man maa ngi. cinq yi. waaw doqee xaama dëgg la. <laughs> yaay xam nga bàyyi mu ma lan mooy baraat foofu récence Mansour Sow rek ci liste bi. non yaay sama liste boobu mu ngi ci liste Junior mu ngi ci liste bi. waaw yow xoolal mu ngi ci mais ñi mais ñoom xale yi ñu wax ma nan la ñuy mbaraanee. léegi wax sama liste bi nga xamante ne ah. man man xam nga man maay xale man ñun ñooy mbaraan. xam nga euh, ñi Lise mi am jëkkër boobu. yaa sol yaa sol seen man maa bi jigéen bi nga ne maay mbaraan. ah pardon. no non madame Ba yow bokkoo ci expliqué. du madame la waaw <laughs> léegi sama liste sama ñi may génnal. Mhm. junior a Alain ngi ci Modou Mbacke ngi ci Alain na nga ko ci waaw ah, waaw ah, Modou Mbacke ngi ci Ousmane a ngi ci. Hmm. donc ñoom ñeent ñëpp ñu ngi génn ak man. ok lan mooy mbaraan si ñoom ñëpp ku ne ma bëgg naa la mën a la maa la raw. waaw mooy que ni la may la may def ca mbaraan ba mooy. la may mën a am ci ñoom d'accord la ma mën a am ci ñoom loolu la ñu mën a dippe mbaraan. d'accord Modou Mbacke bu ma woowee rendez-vous. Mhm. mën naa am ci moom téléphone bu bees. d'accord mën naa am ci moom cinquante mille ma dugg sama poche. Alain bu ma woowee mhm. rési bee ñu toog di waxtaan. tey mën na am gise naa ak mbuub mu ñëw ñu séddoo donc loolu mbaraan naa Alain am naa ci moom cinquante mille. d'accord junior. junior bu ma invité ñu génn moom tamit. Mhm. Euh, yaakaar naa ci moom tey jii euh, cheveux bu baax. ma ne ko sama copain copine bi day jaay cheveux mun na ma jëlal dinaa ko fay. loolu mbaraan su ma àndee Ousmane gis robe bu baax. Ousmane jëndal ma ko loolu sañse naa du pas Ousmane Cissé de Ousmane monteur la. dénk mais li nga xam baa nekkul dëgg sax yow tamit roqe. non non non xoolal bàyyi te xale bi dama ni yaay est li ngay wax nekkul yaay ñoom ñëpp sam ci dëgg loolu amu li wax nekkul dëgg wéyal la roqee yaay ñoom ñëpp sam ci dëgg voilà ñoom ñëpp ñoom ale ñoom ñëpp dama day dëgg <laughs> waaw tonso ci <laughs> yaay dama bàyyi ay bind neel tonton donc wax ji mooy charmant que papa boo waxee papa rek déjà da nga koy jox yaay. voilà xam nga mu kon nar a euh, kon kon euh, tey jii. Euh, loolu ñeenti ñooñu ñëpp am na lu ma visé ci ñoom. d'accord mbëggeel amagu fa nag. Ah, mbëggeel amu fa. li ñu visé ci ñoom mooy li nga xamante ne ni. bu ma bu ma ko mbaraan kenn nëbbu ko. dafa am lu ñu bëgg ci moom. mbaraan kenn nëbbu ko. lu mu yor la lu ñu gis. d'accord loo xamante ne bi yaakaar nañ ne bu ñu ànd moom li ñu bu soxla dinañu ko fajal kooku dañ koy mbaraan hmm. amaana nag mën nañ leen a mbaraan ñoom ñeenti ñëpp te fekk na juróomeel bi nga xamante ne moom la ñu la quoi naxaate la moo tax ma la gi muy jigéen ki ku ci gën a muus yaa ciy génn waaw man rokki mi na ci bañ a am rokki a am loolu laa koy tegal nii gis nga rokki mi ñoom ñeenti limal nii mm-hmm. kenn mën na ma cee bañ am sax bise. ok bay bay bay bay egg. Ah, sax kay mun naa bis boo comme ni ñu koy waxee système la wax ju neex la ba nga génn ci am li nga bëgg. d'accord donc noonu lañ koy waxee ci sunu langage ñun. kon keneen keneen kii dem. dootul baax di wax ne bon di di di fayoo maanaam di jaay boppam. pour mm-hmm. am loolu. Mm-hmm. kon kooku mbaraanul. Mm-hmm. mais dafa dafa dafa dafa gàncatu. voilà ok am na am na si ñoo xam ñu ngi leen a gis. xam nga am na appartement yu bari tooñu ma kenn yaa ngi gis ay xale yu jigéen ñu ngi ci dëkk ay 4 x yu baax ay xale yu jigéen ñu ngi ci dëkk ñan ñoo leen ci dugal eh, eh, ay eh. borom mi barke dama lay wax rek benn attends ku dawal 4x4 mara non bàjjen non bàjjen seetalal sa bopp jàppal ne li ngeen def déet xam nga laa bëgg wax bu ko yëg déet wax non non wax ji xam nga lan la. je te parle euh, li nga xamante ne moom mooy. xale bu jigéen bi nga xamante mooy xale yi nga xam ne xëyuñu gontuñu liggéeyuñu yor seen appartement bien meublé yor seen oto yi tooy. bu leen bu ñu dañuy jaay kàncax merci beaucoup mag mi nga xamante ne day fooyee boppam. mooy parce tëdd balaa ñuy am li ñuy am. voilà mooy mag ñi nga xamante ne ay borom barke lañu. matadi ba and ak xalé yi. matadi maa ko say di def di def di financer xalé yi te ñu au retour la soxla moy ben 5 euh, minutes bi ñuy am ci yow. amna xalé yu leen ko nangul amna mm-hmm. lolu mom moy li nga xamantene mom lañu bind moy prostitution déguisée nañ ko wax ta amna pervertir xalé amna na te loolu ñi ñi ci pousser xalé yi ñu di def moy mag ñu matadi ñi nga xamantene ño nek ci biir dëkk bi yor seen xaalis ta amuñu fuñ ko investir fu ci xalé yi donc mbaran bi tamit bo ñu bu lolu bokku te euh, mbaran mm-hmm. mbaran moy limal ñepp nga xamantene tay ji jii bu 31 décembre coxewee soxla naa nangam ak nangam eh. sama ñeenti ñii kenn ku si nekk dina ma assuré tey sama sañse démb de laay fay wal na ma vidéo boo xamante ne dama ba faf sax bañ 30 waxtuma lak 30 mu ngi noonu dégg nga tey bu nañu jàpp ne ñu ne mbaraan rek ñu ne joxe na boppam si mbaraat kon xale yu jigéen kon kon dëkk bi jeex nañ kon xale yu jigéen yi jeex nañ nañ ko waxante mm. li gën a garaaw mbaraan mooy prostitution déguisée mu ngi ci biir bokkut ak mbaraan d'accord mag ñi ñu ngi te mag ñi ay magan koy def ay xale koy def xale yi dañoo weex du mbaraan mooy dajalay far am tailleur am cosmétique am jaay orange euh, ku nekk ci service euh, transfert d'argent am koo xamante ne mooy joxe euh, mooy voyager mooy joxe cheveux ci tamit yombul de waaw xam nga lii paate du demba non non rëcc ci yombul moo tax ma ne la ku gën a muus la rek parfois na nga nekk ci li mbaraan ba yàlla nattu la si kenn bu boobaa bu boobaa nag kenn kooku xëj na moom ngay moom ngay moom ngay àndal mais nañu jàpp ne mbaraan bokkut ak joxe sa bopp am na solo lambe golo la d'accord bëri bu keeg mbaam la. Ah? mo ngi bëri bu keeg mbaam mu ngi non <laughs> ngi non non juste ben parenthèse mo ma bëgg ubbi si lu Roxaya wax. rafet na macha allah euh, waaw waaw lu mu xamna solo torop mhm. mais ben parenthèse juste que. am na ñi nekk si réew mi tamit am na jeune fille yu nekk si parce que bëgguma ñu solo ñëpp benn bëbbu. Mhm. d'accord am na xale yu ndaw yu nekk si dëkk bi di dawal oto yu rafet yox seen bopp. am jom am jom. Mhm. di liggéey. ñooñu mënuñ leen boole ci mbaraat bi. parce que tamit foo gis ñuy raas dem am ñoo xam ne. ñu ngi def lu baax. donc mbaraan man comme que euh, Rokhaya définir na mbaraan man damay indi. Mhm. jikko kat d'accord. ko mhm. gis xari bu jigen bu lay nan mhm. sa papa day bañ ko ma set suñu kër kenn du fa ñew mo ngi ras day mbaraan. ok kuy mbaraan kenn du ko set waaw bu wax kuy seet waaw waaw. kuy mbaraan. mom mo seti waate kenn du ko set d'accord. kuy mbaran kenn du ñëw këram. kenn du ñëw këram ndax bu kenn ñëwee dina ko yàqal. day bañ ñu daje fa. waaw day bañ ñu daje fa non seulement mais kuy mbaraan kenn du xam faram. d'accord day am candidat yu bari moom rek kay dem. mbaraan li mu li mu li mu li mu ëmb. moo moo bëri ndax euh, euh, ku am xel dëgg mooy mbaraan nag. ku musul du mbaraan. Ah, parce que kuy mbaraan du warul juum. maa lox loolu dajale farkay. waaw mais yaa ngi wax non c' est la professeur nga xam ne yow tamit. <laughs> mais yéen ñaan yéen ñi na ko damaa dund ak ñoom génération moo tax xam naa non Marane dafa la technique. technique la ak muus ak ah, xel yow non eh, xam eh, expliqué eh, lu tax. Ah, pas d'accord gis nga booy mbaran xaaral ma booy mbaran booy mbaran euh, Birama di juum. déet bay Birama yor ñeent ñeent. Mm-hmm. di juum ci ay tur doo dem. Mm-hmm. booy wax di nettal di oh, raconter histoire parce que booy mbaran da ngay mm-hmm. te boo fenee. racon moytul raconté benn histoire bi ñu indiwaat ko. fekk keneen nga ko dundaloon fekk keneen nga ko dundaloon indiwaat ko. Mhm. moo tax dafa laaj ruse. Mhm. waaw ndax moo tax man ni mbaraankat yi dëgg dëgg liggéey lañu yor. dañuy liggéey. business la. waaw ah, beneen aspect bi euh, roxey wax na ko du da ngay mbaraan rek te da ngay joxe sa bopp. maintenant ñi ciy joxe seen bopp. Mm. mooy prostitution déguisée bi. waaw parce que nag euh, euh, jigéen fii Sénégal am na ñu am ay tradition am na ay jikko yoo xam ne jigéen ñi dans le cadre général dañ ko war a làmboo. d'accord. mooy yow nga am oyofal euh, sa ndaw olof oyofal joxe sa bopp. Mhm. woyof sër woyof sër mhm. loolu dafa nekkatul dara ci Sénégal c'est-à-dire que dafa ma wax benn affaire mhm. mu ne bu ñuy nekk xale ñoom euh, boo amee jëkkër te day am ñoo xam ne si biir si biir euh, seen ndaw am nañu ay accident na ñeena mais boo sa jour mariage par exemple ni dangay si fii léegi nit am mariage invité ex copain am te fekk ne am na fu mu jot jaar ex copain am. bu njëkk ba boo amoon jëkkër. ku mu son farantool avant. yow doo nangooti kooku teg la bët. Mhm. d'accord ci fekk ne sax eggoo leen fenn fekk ne mës na la teg loxo. mës la biis yow am nga kersa sax. daje teg kooku noonu. Mhm. donc valeur yooyu yëpp moo dem. ah léegi léegi ñi ngay tëddal sax ñoo lay maye. exactement donc euh, mbaraan tamit dafa am beneen aspect mooy góor yi sax dañuy mbaraan. dañuy mbaraan mhm. ma ñëw ci góor ñuy mbaraanee. damay oustaz Birama day toog nii. Mm-hmm. am ñetti copain mm-hmm. ñëw gis Louise mu neex ko mais ah Louise neex nga ma di génn ak Louise. Mm-hmm. dem ba ci biir xam ne Louise da koy mbaraan. mu ne ko mu ne copain am diw. paas la ko man de am naa xale bu baax maa la koy naa jox numéro pour indi. Euh, bëri bukkeeg mbaam bi donc mbaraan bi mënuñ ko catégoriser xale yu jigéen ñi kese góor ñi dàq mbaraan fuuf mhm. te xam niñ koy defee te xam niñ koy defee association la ñuy def d'accord benn jigéen 15 jël ko paasante ma wax mhm. te ñu nekk ay copain te ñu nekk ay copain loolu la mais xanaa ñoom du ñu wax kaa présenté sama copine bi non non présenté amul ci mbaraan loolu maa koy wax léegi ma am na si ñoo xamante ni da ngay gis xale bi nag da ko bëgg miir fekk ki la koy may moom jaar na ci ba jàll voilà dañu xaw a. dañu doy waar. je sais pas xaw ma sadik laa ko tuddee xaw ma naka laa koy tuddee ah. vraiment dafa dafa yéeme mère Thiam. Hmm? ñun yaay yi sonn nañ de. man dama xamul sa luy mbara. mais am na maire yoo tamit tamit. ah am na maire yu mbaraan non maire technique gu mbaraanu maire yi. ñooñu koy. technique gu mbaraanu nañ xam beneen tur bu tudd bu bu gën a raw mbaraan ñu tuddee ne mbaraan bi ñoom exercé wuñ ko de. Mm-hmm. mbaraan boobu. ah mbaraan xam nga xam nga maire yi lu ci garaaw mooy seen technique de mbaraan moo garaaw mhm. euh, am ñoo xam ne maire yoo xam ne dañuy mbaraan nii am xale jigéen ñuy mbaraane mais bu ci gën a bon mooy da ngay gis benn maire caama toog këram dëgg li xam nga du xaritoog mhm. du xaritoog mag ay xarit rek lay xaritoog mhm.

ñun lañ ci gën a yab. Thiam <coughs> nee na xamal luy mbaraan Birama. waaw man de dama am problème ak Louise ak Rokhaya. Mhm. bon problème bi c'est parfois ni ñuy concept ni ñuy waxee am xel ak ñàkk xel. Mhm. xam nga toujours dafa am lu war a bàyyi xel yaay. Mhm. ngeen baal ma si baat bi dama xaw a soj. waaw jigéen bu jox boppam góor. ak góor bu jox boppam jigéen. ñoom ñaar ñoo yem àtte ca yàlla. dëgg la loolu dañ ko war dañu war a d'accord ci loolu ba pare. xam nga société buy delloo gannaaw mi ngi delloo gannaaw ci di woyefal yu diis. Mm-hmm. mooy bu ñu ba jàpp ne jigéen bu joxee boppam rek moom moo am toor. Mm-hmm. benn lam dong ci loxo di yëngu. dëgg la ba ngeen des bu ñu waxee mbaraan nag xam ngeen ne man dama jàpp ne te loolu yéen ñëpp loolu ngeen jàpp. Mm-hmm. bu ñu toogee fii di waxtaan dañuy wut ay solution si ay problème mais problème boo bëggee am solution yi faaw nga xam fan la jógee. nga xool ndax mën nañ ko wutal solution am déet. gis nga mbaraan. Euh, ni réew mi nekkee réewu aada. ngeen baal ma baat bi maa ngi jégalu ñëpp mais noonu la nekkee réewu mbaraan te man naa ko expliquer. da ngay yor sa ñaari rakk yu jigéen ci kër gi. Faatu ak Nogay ma ne Faatu fóotal ma sama yére yi. Faatu bañ ma ne Nogay fóotal ma Nogay fóotal ma ma may ko 2000 francs. maa ngi jàngal Nogay ne à chaque fois bu defee dara dama dafa war a am lu war a dellusiwaat ci moom. te Nogay sama rakk la war naa ko mën a mu liggéeyal ma sans da nga xam nga xam nga foofu li may li may jëm li may jëm mooy c'est-à-dire xam nga xale surtout jigéen ñun woy juri dañoo war di bàyyi xel ne xale sa doom waroo ko neexal parce que defal na la benn rendre na la benn service. pour mu xam li ko war je suis pas nekk dama lay dama lay nangul loolu. dama lay nangul loolu. nga yor say ñaari frère si kër gi te ñaari frère yow xale bu jigéen frère bii nii mënul kii mën na kii da la may yenn saa yi mu lay may 2000 kii 1000 francs nga jël kooku yëkkati ko ba ñëpp xam ne yëkkati nga ko c'est-à-dire li ma lay li ma bëgg a wax foofu mooy dafa am lu muy yee si nit ki dafa am lu mu lay jàngal. Mhm. am nga jigéen bu juumee rek góor ko juumloo. Mhm. jigéen bu juumee góor moo ko juumloo. Mhm. xam nga yàlla buy wax naan xas caxafa xubba soxna jaamur la bu gis góor bu mel noo xam ne boo ko xoolee dagg. jigéen bi gis Youssouf jaxasoo mais jaxasoo gi mu jaxasoo soxlawul woon Youssouf jox ko dara pourtant. xam nga loolu dañ ko war a maanaam jigéen dina topp góor te soxlawul dara ci moom. maanaam loolu dafa nekk lu naturel. jigéen gis góor bëgg ko. bëgg nekk ak moom. loolu dafa yàgg di am. mais gis nga ñàkk yar gu ñuy ñàkk yar jigéen ndax gis nga nit loo mën di am faaw nga am sago. jigéen da ngay am bañum rus. jigéen da ngay am looy jombale. sa bopp di rus di jomb mm-hmm. di noonu euh, woon ndax bu fekkoon ne amoon nañ ko nañ ko waroon a amee. dañ koo sàggane dañ koo sàggane dañ koo bàyyi dañoo dem ba woyofal ko jàpp nañ ne nekkutul dara yooyu moom mooy tax nag. li ma doon wax sànq Louise foofu laa doon jëm quoi c'est-à-dire nga man ma may dara nogay bi nga xam ne sama rakk la mm-hmm. nekku ci mais ma may ko parce que dafa ma rendre benn service loola war na tax nogay dafay jàpp ne à chaque fois bu defee dara war na am luy ñëw ci moom loolu noonu nag moo tax yàlla di wax naan qu anfusakum wa ahlikum naara yar leen seen doom yi rawatina seen doom yi jigéen yi nga yonent yàlla Shuayb bu yar na doomam ba doomam labat góor ba mu takk ko te je ak moi aussi judduwul ci sëy bi Shuayb bu dafa yoroon ay doom yu jigéen amul woon doom yu góor jàng nañ xisa yi mi ngi si alquran mu yabal leen pour ñu war a dem rooti nandal seeni i jur ci gàttal Moussa defal leen loolu tëdd fa mu tëdd benn doom bu jigéen bi ñëwaat na ko sama bàyyi nee na nga ñëw mu fay la li ñu defal wax nañ ay détails naan xale bu jigéen bi dafa ko jiitu woon Moussa ne ko bàyyil yooyu yëpp c'est des détails ndax alxuraan indiwu ko li mu indi mooy Moussa toog na di nettali Chouaïb bu histoire am Chouaïb bu di wax ak moom doom bu jigéen ba ñëw ne ko papa kii daal jël ko embauché ko papa ji xam ne ak ni mu yaree doomam ak dignité bi nekk ci moom. ak fulla gi nekk ci moom. bu demee bay am intervention digganteem ak góor kon am na cofeel ci góor gi. mooy papa kii bëgg naa ko. dëgg la papa ji dégg na doom bi dafa nopp Moussa mu ne ko man daal dama bëgg sax euh, embauché la. mais condition travail bi kon ci contrat bi mooy boo ma liggéeyee huit ans ma may la kenn sama ñaari doom yu jigéen yi bu la neexee sax nga def ko dix ans dix ans yi mooy bu la neexee mooy bu fekkente ne cofeel gi am na dëgg-dëgg kon tegal ma ci bénéfice defal ma ci bénéfice deux ans mm-hmm. Moussa ne ko d'accord lu ci mën di am daal ñaari ñaari digg yi bu ma ci def rek bu ma kenn lor mooy su ma amee huit ans mm-hmm. nañ ma jox sama jabar wala su ma sawaree ba def fi di dix ans yi tam nañ ñoo te xam naa li tax mu indi date yi sax c'était pour jàngante jikko bi. non non pour jàngat mais itam pour mu xam ndax xam nga tey jii fukk juróom-ñetti at ngay liggéey si kër. Mm-hmm. ñu wax la juróom-ñetti at yi bu ma mm. mu la sañoo mu toggal la sañoo mu balel la parce que surga nga si kër gi. Mm-hmm. amagoo droit pour mu doon sa soxna foofa jikko dana fa feeñ. ndax jikko booy dugg si kër dafay toog si bunt bi. Mm-hmm. di la xaar di la xaar ñëwal mbaa ma ñëw. mais léegi ñun naka la ñuy suñu léegi cest à man baatu mbaraan bi xam nga dafa nekk loo xam ne Euh, dafay xaw a tiis boo koy wax ndax dafay laal sa yaay dafay laal sa soxna dafay laal sa rakk bu jigéen dafay laal sa doom dafay laal société bi mhm. ndax société bi moo mel su ma waxee ne société bi moom mooy mhm. mbaraan waaw parce que moom la euh, roxee développé léegi boo mhm. gisee si introduction yi maa ngi koy laaj définition mbaraan parce que ñoom xale yi peut-être ñun mën nañ ko déggee sens boo xam bokkul ak ñoom ni ñu koy defee d'après man li ma dégg ci moom mbaraan mooy intérêt la intérêt la nit ki da ngay sélectionné parce que am nga manquement léegi manquement boobu pour nga combler ko te xalaat nga ni kenn ki kese mën la koo jox. moo tax nga nga nga tas ko ku nekk am loo ko gàll. ah, ah waaw même dañuy wax xale mais. Mm-hmm. yow jaar nga ci affaire ngoro bara nga ñëw fi. Mm-hmm. voilà cest à xam nga xam foofu. dafa am eh, ko fàtte quoi dama ko fàtte. waxuñu jaar nañ ñun buñ ne même buñ dee. waaw buñ jël exemple si bopp. ah <laughs> pour jaar ngorom ndax mbaraan naa mën a tooñ non man nag man xam nga <laughs> jigéen ñi jigéen ñi <laughs> waxoon naa ko de waxoon naa ko mais répétition la mhm. gis nga jigéen ñi dafa am ñetti dafa am ñetti ci bu góor yi jigéen ñi di woon ñoom rakk yi nii yaay parce que yi ñun tamit jaar nañ non maanaam li ma la bëgg a wax moo mbaraan moo taxoon mhm. ma laaj définition waa jaar nañ ci labat nañ ñu sëy nañu gis nañ ku ñu bëgg ku ñu bëggul comme ni ñu koy waxee copain copine peut-être. Mm, mm. gis nañ ku ñu bëgg ku ñu bëggul mais est mbaraan nañu. Mm. foofu la cause bi foofu la. ah doo kenn rek moo doon ñëw foofu. non non bu la ah, mbaraan non dafa que. yow kon ñaar ñoo man waaw. non attends ñoo doon ñëw. man man kon na système bi. man man mais loolu la. loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu le mot mbaraan laa wax caama dafa mel ni. yaa ngi jël euh, mbaraan ma nga li wax na léegi nee na. waaw yow da nga doon mbaraan. kii ku dajale rek mbaraan nga. kii mooy indi chèvre kii mooy indi chèvre kii mooy indi chèvre. kii mooy indi téléphone mooy loolu la a sauver bëgg a sauver kii mooy indi téléphone kii mooy indi fekk lu te dëgg yow du séqal dara. xam nga muy làmbi golo. waaw loolu ñëpp jaar nañ ci. ah maanaam intention yow jaar nga ci. intention oh, intention intention. dëgg la yàlla bëgg de. intention. <laughs> xam nga da eh, da ngay toog seen kër man la doo juddu yow rek kenn di la bëgg. defal ndànk da ngay toog seen kër. comme comme yow dégg nga ko mën a xam naa mbaraat da ngay la seet. xam nga mbaraan mooy yow nga xam yéene dajale ay góor pour nax leen loolu la ñuy tuddee mbaraan non mais buñ la mayee nag te ñaanoo leen a waaw léegi nag reste suñ la mayee te ñaanoo leen nag déggoo ma de loolu xam nga lan la mais góor mën na ñëw ku baax indi kado may la caama bu keneen ñëw la. caama loolu mbaraan la yaay loolu du mbaraan du mbaraan du mbaraan gis nga jànq bu toll ci âge ñu war koo mm. bëgg ñëpp lay bëgg. loolu laa wax bu bu bu fett. xam nga fleur naka la ko tubaab di waxee. day waaw am na bu demee ba fleur bi génn xam nga nii. mooy mooy jeunesse ba xam loolu mbaraan loolu rek laa leen bëgg a bu demee ba ni nii. foofu mooy fleur am fleur waaw fi mu fi ñu jël mbokk mi. aleykum salaam wa rahmatullah ñoo ngi fi alhamdulilah. maa ngi lay seetaan ci télé euh, télévision bi. waaw dëgg la yow la kan. man la Babacar. Babacar noo def mbaa yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi si jàmm wér alhamdulilah. yaa ngi ci biir dénkaane. waaw euh, maa ngi maa ngi leen di remercier si li débat bi ngeen di def. jërëjëf. waaw tax nañ si waaw. jërëjëf yal na yàlla kontaan. amiin amiin te gis-gis ci euh, mbaraan bi. li ngeen di li ngeen di def nii presque lu am solo la. dëgg la. transmis ah, eh, mm-hmm. yi léegi ragatuñu yàlla. waaw doy na waar de. waaw loolu moo waral mbaraan bi am. waaw suñ delloo xel yi yëpp ak xol yi ci yàlla. waaw. après am na yenn yi duñ ko def. presque mm-hmm. eh, du yëpp jullit. waaw. waaw loolu moo waral nag eh, affaire bi bëri. jërëjëf. mais maa ngi leen di jëlal bu baax après dagg naa leen. d' accord jërëjëf. waaw yal na yàlla fay la yu. am na jërëjëf. man dafa am moo bëgg a laaj rek. non waaw kay jërëjëf yàlla na yàlla fay la ñu ngi lay ñaanal kendal ak jàmm bu keneen ñëwee rek ñu jël ko incha allah ci kàttanu yàlla. xam nga xam nga sax duñu d'accord ak Cheikh dafa lu may laaj dafa lu may laaj damay leen ma laaj. non damay laaj bu ngeen toog ma leen bëgg laaj rek. damay leen laaj ngeen may ma laaj leen ko. Louise mu ngi si këram mu ngi si am 25 ans ñu koy bëgg. Cheikhu naa ñëw gis ni man danga ma neex bàyyi fa kado may ko kado. mu ne yaay Cheikhu naa moo ma may kado bii jox naa waxul dara de. Mhm. mu téye kadoom. laay pay jaar fa ci koñ bi lañ dëkk de. ñooñu ci koñ gis nañ ko. Mhm. ça va ana Louise ñu toog waxtaan nag dama fi jaaroon rek. Mhm. am montre bi maa la ko may. mu jël merci. mais teewul ni Louise moom. am na ku muy génnal ba officier mu xam ko. waaw yaay yaay mais xaaral ma ma yeggali. ñooñu ñëpp kon de moom dafa eh, moom ñaanu leen ko de. waaw kaddu lañ ko indi loolu mbaraan la. mais yaay foofu noonu may ma ma yaay foofu noonu. Ah? xam nga ba tey seexu naa wax. waaw xaar ma xaar ma jël ko mu voilà ñu jël ko ci ligne bi. caama fi nga dugg du mbaraan dañ dañ mais dañuy damay laaj rek. allo mbaraan bi war a ñëw waaw su baax si naa def. ñu ngi lay ziara. ñu ngi lay ziara. jàmmal naka yitte yi. Ah, waaw alhamdulilah. bisimilah waaye yaa ngi ci biir ndénkaan bi ñu ngi leen di ziar. ñu ngi delloo ziar bu wér. man la maam Sey Mbuub di woote Loura. maam Sey Mbuub. waaw mbuub mbuub yaa sax oustaz boobu. oustaz Birame Diop Birima waaw. mbuub di waxtaan bi daal am na solo rek. jërëjëf. xëy na xale yu jigéen ñi nañ ciy gën a bàyyi xel te di gën a seetaan seen waaw am na solo trop. dëgg la man chaque jour dama koy seetaan rek. ndeysaan dama koy seetaan da ngay am na solo. ana ana mère Zeynabou. jërëjëf mi ana waa waa waa kër Modou Khari ñëpp. ñëpp ñëpp ñu ngi ma ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar. ñu lay delloo ziar. mère Zeynabou ne ko nuyul ma ko lu bëree bëri. waaw dina ko dégg. wax ko namm dina ko dégg incha allah. nekk leen di jàmm. nekkal ci jàmm yow it ñu mm-hmm. man fi ma bëggoon wax rek. ci yaay. Mm-hmm. Euh, seexu naa bi mu ñëwee dafa ne mm-hmm. Louise daf maa neex mu jox ko ko si kanamu yaayam non non dafa pare mu jox ko mu ne ko ma ko jox naa dajewul ak Louise ci mbedd mi mu ne ko dama laa bëgg mu ne ko man tamit bëgg naa la ñu waxante ba fas mhm. daj laay pay dajewul ak Louise ci mi mhm. waxante mu ne ko dama laa bëgg moom mu ne ko bëgg naa la ñu waxante ba fas mhm. xam nga ñooñu peut-être que ni nekk benn jànq si koñ ko ci démarche am ñëw jox ko dara mais ba tey mbëggee waxuñu fa waxi mbëggee bu ñuy wax mbaraan day fekk ñaari nit ñi waxante nañ dama laa bëgg nga ne maa la raw ba pare mbokk mi ci ligne bi asalaamaaleykum dem na. bu gis nga dafa am loo xam ne dafa indi problème. waaw parce que comme Cheikh naa parce que dama joxe exemple ci moom. Mhm. bu mu ko indilee portable di ko may affaire musu ko dama a bëgg. Mhm. Mhm. mais biñ ko bëggee may daf ni yaayam daf moo ne sama doom de la mu fa yóbbu yëpp mais doom musul wax. mais ko kenn mbaraanu ko. kon yaay moo ko mais loolu mbaraan la wala. déedéet loolu la non Louise nee na loolu mbaraan la. xamal ma ne mbaraan la xamal ma ne mbaraan la xaaral ma jël kii ñëw ci Louise allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. bu baax na nga def yaa ngi am jàmm. maa yàlla na yàgg. bisimilah wàññil télé bi tuuti ndax ñu mën a dégg. waaw may ma jël comme commande wàññi ko. commande waaw maa ngi lay xaar. jërëjëf yàlla na fayal yàlla na yàlla fayal ñu la. ñu mbokk yi ñu setaan yëpp ndax sot seg def ci lu kii wax kii déglu baa kii seetaan muy mbokkam yàlla na yàlla fayal ñu la Euh, dem na bu keneen ñëwaatee ñu. Eh, man dafa am lu ma bëggoon a yokkal mm. jigéen ñi. waaw xaaral ma jox Louise mu. dafay am dafa am kii xam nga yaay li muy laajte. nga jigéen ñi mm-hmm. ñoom Louise ak ñoom Roqee. Mm-hmm. ñetti góor yi la ñuy dajale. Mm-hmm. waxoon naa ko de ma koy répété mooy le chic le chèque et le choc. Ah. le chic. il est beau. mais il n'a rien du tout. ndaw si bëgg ko. mais li li mu bëgg mooy buy dem fenn moom lay ànd. moom laa bëgg nga conclure ko parce que loolu mooy sensu ba bàjjen lii. ma bëgg wax Mère Thiam li muy détail bi mu joxee léegi léegi exemple bi mu joxee léegi léegi. Mhm. mbaraan la xamul tax. Mhm. noo gis nga jigéen jigéen dëgg dëgg. waaw góor bu ñëw ci yow lu mu la jox rek xam nga ban intention loolu ko joxee. Mhm. da ngay def daf la wala nga def lu la neex. Ah. xaama ñëw xaama ñëw xaama ñëw euh, jigéen góor bu la set si lum la may ak nu la ko mayee xam nga ban intention la ci am derrière. léegi nag yow da ngay nekk ci kër Louise day nekk ci kër Dudu ñëw Demba ñëw Paate ñëw ñuy sañ ku nekk di defar ku Louise amee fulla ci boppam te nangu ne buggul mbaraan. dina leen ne diw ak diw am na kuy yëglu ay ci bopp salaamaaleykum. allo maaleykum salaam. soxna si. waaw. ñu ngi lay maa ngi nuyoo bu baax di nuyu ci plateau bi ñëpp. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay. dama bëggoon participer ci thème bi. waaw bisimilah ñu ngi lay teewlu yéen a ko moom. Ah, thème bi am na solo lool macha allah. jërëjëf. waaw juste que mbaraan moom. Hmm. ñun xale jigéen ñi moom léegi xamatuñu suñu bopp rek looloo ñu sonal. waaw ah, bon. crise des valeurs moo ñu sonal. dëgg la. mais ñu ngi sant yàlla ba vraiment yéen ñu ngi am émission yu baax ba yu mel ni yéen. ngeen ñuy tegaat ci yoon bi. alhamdulilah. vraiment loolu rek laa bëggoon wax merci. Ah, am na solo am na solo merci chérie. merci Louise daanaka la. Louise boo déggee xam nga jigéen. Mhm. yow ki la may xam nga lu tax mu may la. Mhm. xanaa kañ nga bëgg a euh, fulaale rek def lu la neex rek. Mhm. mais non rek xam nga tax mu may yow boo fekkee yow nga yow man du ma mbaraan man jigéen laa dama am du ma mbaraan. doo accueil doo accepté loolu yëpp. li ñu la jox da nga koy delloo non non da ngay ne diw ku ñëw di nga say intention carrément. Mhm. ne ko man de dama am ku nekkal. Mhm. ndax naa la nopp ma rek ñi ci doxaanantee wutuñu noonu sax amatul. gis nga moom la mhm. amatul ay naa la nopp nga ma est ce que nopp nga ma est ce que mën nañu génn. amatul fenn. gis nga Louise li Thiam wax ni daanaka bokkul sax Euh, li ma déggee mbaraan man parce que mhm. caama miy wax ku bëgg a sëy ku toll ci sëy mhm. c'est très normal mhm. nga toog a sol dàllam gis la nga neex ko mu ñëw sa kër nuyu la nuyu sa yaay di jog di dem may sa yaay ñaari junni baa may ko fukki junni c'est très normal dafa am loo xamante ni âge bi boo ci tollee. mais mais yaa ngi espérer loolu maanaam non non bëgg a wax. kañ mooy. maanaam boo ko waxee lu li ma bëgg wax mooy. li caama kenn dina ñëw maye saami caama. caama li nga wax laa laa bëgg man ni ma ko déggee laa la bëgg a wax ah. ma ne loolu mag ñi dëgg démb noonu lañ doon labatee mhm. léegi yow boo ñëwee bàyyi fa juróom maire bi ak doomam xam nañu ndax war nga am walla waroo am mhm. mais duñ la refuser par politesse mhm. duñ la delloowaat li nga fa bàyyi bu keneen ñëwee aussi nuyoo am na ko ñëw bàyyi fa fukk asalaamaaleykum <laughs> allo ah, ewo bisimilah ah, asalaamaaleykum wa aleykum salaam wa waaw man de Fela mu si dugg ci rajo. wala Fela mu dugg télé di woote ko kon nag ñu ngi lay tatagal. donc ma rafet na jotaay bi ñun ñu toog fii. jërëjëf. Euh, di fàttali rek importance bi waaye bugguma ngeen ñàkk a assisté euh, ba ñu ñu si jëriñu di ñu jëriñu. dëgg la bëgguma. li ko waral mooy. xam nga da ngeen ne mbaa ak doxal. dañu ne. maanaam mbaraan. mbaraan waaw mbaraan. mbaraan nag di di kàddu gu kàddu gu ñu xamoon ñun. gis mhm. nit bëggoon ko ci am jamono daana dem sax ba waa ji yëngu baax la. jëm mhm. ko taxaw ndax xam àdduna bu ñu sàgg xale yi def luy gënul. Mhm. léegi nag loolu démb la woon waaye démb weesul ba tey ñu baax ñaan si ñu ngi léegi nag ñu baax ñu fi nekk ak yéen ñi nga xam yéen a toog si tente bi bu ngeen dee bay toog si tente ngeen di fàttali pour ñu jëriñu. Mhm. jigéen ci jamono ji góor ñëw di lay jox portable mais dama laa bëgg nga bëgg naa la. Mhm. beneen góor ñëw fay di lay jox passeport nga ne ko dama laa bëgg nga ne bëgg naa la. Mhm. beneen góor di lay jox effet de toile nga ne dama laa bëgg nga ne ko bëgg naa la. loolu jëf jëfinu mbaraan client la loolu baaxul. dëgg la dëgg la effectivement. koo bëggul bul ndax jëlal la ndax alal boobu la yàq. exactement. kooku alalam bi ci la yaakaar pour jot la. Mhm. alalam boobu lu mu tuut tuut tuuti bu dee bàtt bu ndaw la soo ko jëlee jàpp na ne yaakaaram bés ñëw ci ëllëg dina la takk. nga mhm. tax nga def yaakaar loo ko xolam bi tooy ak yaakaar nu fa ak yàlla mu bañ ko tax yaakaar. dëgg la. nga dem ba jàpp ne tey yow yow tey jigéen bi maanaam village na sama yëpp sëy na su ma sëy du ma wàcc kenn naa dem rek ma ne ñett ñi. Mhm. ñeneen ñi yaakaar. def seen yaakaar ci yoo ñu jigéen ko wóolu. te bu ëllëgee bu ñu gisee benn jigéen bu ñu ko dee jigéen ji baax jigéen ji amul lu ndax dina nekk est ma def kii du ma def comme ñooñu. dëgg la. bu ko defee loolu day yàq société. Mm-hmm. loolu mooy li ñu daan tey. am na solo. benn xale bu jigéen boo xam ne ne ñun jigéen ñi dañoo xamul woon xam suñu fekkaan émission bi ah émission bi am da ngeen koy recadré sinon. Mm-hmm. da ngeen jox ko ba def ba am conclusion nit ñi di jariñu. la. kenn ku ci nekk kenn ku nekk ni mu am na expérience depuis si ni mu dundee. Mm-hmm. léegi nag expérience de vie am na lu si gën am na si gënul mais li gën mooy li gën si de manière générale ñëpp mën si jëriñ Sénégal valeur dëgg la ku koy kooku góor la wéet ne na ndax mu ngi recadré di moom bu ñu waxee ba pare moo koy tëj lu ñu yëkkati bala ñu avancé moo koy tëj ku jigéen ki sol verre yi ñëpp ñëpp ñëpp kenn fay dégg ku jigéen ki sol yi ku ku ku muus la ci ñe développé ndax ngay sax mbaraan ak ñëpp tëj dëgg la li mu wax dëgg la parce mm-hmm. loo ko def mm-hmm. beneen ki si doon ñeneen ñëpp kenn ku ne wax na valeur ma bëgg ngeen xam ne ñëpp ay valeur ngeen am ndax ku nekk wax na xam-xam si expérience mais da ngeen koy recadré ci bu fort pour nit ñi jëriñu. d' accord. maa ngi jégalu ba tënk foofu. ndax su ma dugg ci tey mos a yegg ci. mosoo dugg ci émission bi ndax damaa bëgg bëgguma ko moom conclusion. bul gëj a duggati incha allah. ñu ngi sàkk sa xam-xam jërëjëf yal na yàlla fay na yow jërëjëf jërëjëf voilà xam nga ci li mu wax dafa am solo. waaw koo bëggul may chance. Mhm. bul nangu alalam dëgg la parce que alalam bobu ci la yakar pour pour jot la deug la gis nga gis nga pour leral chama pour limuy wax mbaraan parce que chama limuy wax li nga koy man yow da nga yag manam li ngay wax. affaire bu yag la wa mom affaire de. am sax di non non maanaam rek. non xam yow li nga dund ngay wax. li mu wax nii li ma wax nii. non non dafa indi problème yo xam ni li dafa dafa sage dafa dafa yiw trop parce que da nga yor sa dom bu jigéen mu mu yaru. ñëpp xam ki elle est très polie. ni di fa dem ay mbokkam di fa ñëw li nga wax ni non dama bëgg wax ni

Eh, évolution am na allo. évolution mooy def lu la neex. moom la xale yi dund actuellement. ñoom nañ ko ak ñu ngi delloo ziar ku baax ki. ñaan yàlla yàlla na yàlla jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. amiin amiin amiin. yàlla defal ñu sutur ak teraanga. amiin bu sax dàkk amiin. musal ñu catar lam mi. amiin amiin. ci barke sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. nuyu naa leen ziar naa leen. fay nañ la ñu ngi delloo ziar bu wér. mag ak ndaw. jërëjëf. góor ak jigéen. jërëjëf jërëjëf. moom oh, kuy alamin. Hmm, ki ma yaakaar la. ma ñu sant bu baax. jërëjëf yàlla na yàgg. julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ci nekk noonu la am solo la. Hmm. waaye man ci am na lu ma gis-gis. Hmm. commencé na ci kër yi. ci waajur yi. waaw ci comportement yi. ndax sa doom bu xëyee mu doon ñuul. mu dem ba tuuti mu xees ba foo teg but mu nàcc hmm. war nga ko laaj fan la ko jële waaw ak fan la duggoon hmm. waaye bu dee comme sama saar bi bu ñëwee hmm. may ko mu ñëw mu may la mille francs nga ne ko asawaaj ah, de baax na ki ñëw indi otom ñëw joxe cinq mille yëkkati trois mille may la waaw nga ah yow de kii moo gën a baax ki nga yoroon xanaa da nga yor ku kon nag nañu seetaat bu baax. yaa ngi koy poussé mu def naka sa kon nag mag ñaa ngi ci. xale yaa ngi ci. dëgg la. li ma gis nag moom mooy réseau sociaux buy dox la. muy ci àdduna gi yëpp léegi. dëgg la. nit ñi nañ delloo ci defaraat jikko yi. waaw. te di jomba ci bañ a rus ci bañ a ragal. dëgg la. nit day jomb. jomb naa wax lii. jomb naa dox lii. Hmm. jomb naa ñu fekk ma ci lii. dëgg la wàllu gor la. mais bu dee loolu amatu fi. Hmm. dara amatu fi léegi. dëgg la dëgg la. yal na yàlla boole jéggal. amiin yaa rabbal mi ngeen jàpp foofu ngeen jàpp. alhamdulilah. lu am solo la. jërëjëf. kon nag mag ndaw ñëpp ngi ci biir réseaux sociaux yal na yàlla fay la yiw. li ci des. Hmm. mooy am na benn kabaar bu yàlla indi. ci réew mi. ñu war a ko jàllale. xibaar. def naa ne am na koo xam ne joxoon naa ko élément. Hmm. boo xam ne bu ngeen waxtaanee dina leen wax nu mu demee. xibaaru jàmm. waaw incha allah jàmm rek la incha allah jàmm la. lañ koy laaj. Ah, bon na nekk bu ngeen demee ba ci biir. Hmm. dina am fu mu feeñ. fan lay feeñ fii boobu jàll. Hmm? lay feeñ fii war na mën a feeñ foofu ci yéen. ci ñun. waaw ci yéen ñëw toog foofu. am na koo fi jox xibaar. waaw incha allah. am na. Mhm. yéen sentir ngeen ko. Mhm. waaw kon baax na. am na ku ko ci jox. koo ci jox. waaw. Mhm. am na fii ci plateau bi. waaw kon baax na. kan la. bon je sais pas yow yaa ne am na koo ko jox xanaa yow yaa ñu wax. diw laa ko euh, jox nuyu nuyu nuyu nañ ko. ndax euh, dañuy faral di jokkoo ak moom. ci ah, téléphone ah d'accord d'accord mu nekk euh, nitu yàlla. mën nañ ko tudde noonu ko xamante ne. ñaan di muslu ndax li ñu dëgmal mhm. li ñu dëgmal mooy élection yeeg ah, tension bi nga xamante ne moom moo si am muy faral di wax boroom kër yi ñuy ñaan ndax jàmm am ak dal am mhm, mhm. rawatina si xale yi ndax euh, ni ñu toppee yenn politique yi xër gu ëpp da leen ci yóbbu donc mu ne am na lu ñu dundoon ñu weesu ko si Sénégal yaakaaruñ ko fa woon te ci lu mel noonu la ñu dëgmal kon kilifa gu si nekk si sa kër war ngay toog di ñaan ngir jàmm am bu laajee sax léeg yenn sarax yi ñu génne ko. Mhm. ndax euh, période bi nga xamante ne moom la ñu jégmal yaakaar naa ne loolu. Eh, bi ñuy wax jot nañ see joko mu ne bu mënee egg ci kër yépp ñëpp déggé ko noonu muy ay ñaan yo xamantene ay muslay la ci réew ñaan yu wala man mo borom kër gu ci nekk rek lo mën rek ci ñaan yu bax yo xamantene ci dal la ci jamm la nga xërtal ci ñëpp ñëpp dal di koy def ndax période yi nga xamantene mom lañu la dëgmal je pense que ni lolu mom motax euh, appel am sax dal ñu koy jaajëfal mhm. yal na yàlla fayal ñuko mhm. ñaan mom buñ ci jóg muk mhm. abadan dayman rawati na li ñu dëgmal yal yalla def Sénégal jamm amna keneen ku ñëw asalaamaaleykum. aleykum salaam mama. soxna si. na ngeen def ziar naa leen. ñu ngi delloo ziar yow kan. Euh, seen benn téléspectateur boo xam ne à chaque fois dina dugg di joxe turam. jërëjëf mais dinaa mos a joxe sama tur. waaw baax na benn problème. jërëjëf ah, parce que je vous suis tout le temps. merci beaucoup. merci mais dama bëggoon nuyu leen nuyu mama Mère Thiama ak yooyu. fay nañ la. bëggoon naa xas tuuti Mère Thiama. <laughs> mais dama koy baal tey. déedéet sànni ko xeex. am naa ko dugg baal sànni xam naa da koy excuse te day dal sama doom bi c'est vrai baal ni ngeen débuté ci ci revue de presse yi. waaw vraiment dafa fësal moom fi mu fax. waaw nañ ko comprendre émission bi dañu war a ab politique. ah Mère Thiama de moom wax ak nit yi di bàyyi ak teg. xam nga ni muy bàkkoo naan day toogaat. <laughs> nañ ko ko may. waaw na de mais caama de ciment la wow na ba pare moom. <laughs> merci voilà. mais <laughs> uh-huh. bi ngeen commencé tamit ci ndénkaane bi femme ak femme. waaw damay def tuuti briefing foofu. parce que vraiment li sunu maam yi bàyyiwoon fii ba léegi. Uh-huh. moo fi nekk jigéen naturellement rek dafa muur dafa pur dafa douce. Uh-huh. donc jonge bu yóbbee sa bopp loolu man contre parce que.

waaw dégg saa booy maram yaa ngi fen. Mhm. te fen. fen la nangu ko. waay dañuy dina nangu ko. déedéet. voilà. ñu mhm. ngi noonu gis nga am gore ak doylu. Mhm. sama maam doon na ma wax naan suufu lal boo fa nekkee sax heure sëy bu joxee. waxtu bi dafay mel ni lu ñuy sab kenn du tee ba doo xaw a parce que dara neexul sa mariage jot. ñépp di la offrir cadeau mais yow ban cadeau ngay offrir sa jëkkër. Moustapha. mais cadeau boobu nga war sa jëkkër mooy yàlla lim la jox. mooy bi gën a précieux si jigéen ñi. ñu mm. yàq ko wala mu am leneen mais fu ñu jaar ak fu ñu jaar ñëpp xam nañ. Mm. boo ñu dafa tuñu ko. waay nañu revenir daal <laughs> vraiment xale yi ni ñu expliqué dafa ëpp. dëgg la xale yi fu kenn xamul lan moo leen. yéeme na de yéeme na dafa am beneen tournée bu am pour yow boo ko deful nekk au top wala bokkoo wala lan la. bon am na yoo xam ne yaa ko war a impliqué ay valeur yow bi mm-hmm. sa bopp yow en tant que femme ne man ñi jomb la naa ko sama bopp mais imagine fii góor bu lekk xaalisam ci jamono yii mm. dina am nu mu demee doy na waa góor boo lekk xaalisam dina am nu mu demee ala kulli haal bañ a a guddal nag xam naa am na am na solo am na solo sànq ba léegi maa ngi insisté ñu ngi lay euh, jaajëfal فرح har naa dinañ bëggan sa waa. incha allah incha allah yeneen ñëwaat ak yëpp. incha allah mention spéciale vraiment. merci bonne continuation. dañu neex na am na solo ku ci ku ci kii rek. merci rek di nga defaru ci àdduna ak àllaaxira. alhamdulilah di leen jaajëfal di leen ñaanal. amiin di leen yokk ba yëpp ko. amiin ñu bokk ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ñun ñëpp yokku. jërëjëf amiin amiin. voilà amiin merci. merci suñu soppe bi yal na yàlla fayal ñu. amiin amiin jërëjëf jërëjëf. yal na yàlla fayal ñu kon nu mu ko waxee noonu yal na yàlla fayal ñu ko ñaan yi buñ jóg ci ñaan ndax Sénégal ñaan rek la am mm. kon dañuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy comme niñ ko waxee rek mbaraan bi ndax nag euh, kuy mbaraan ak ku dul mbaraan xam nga ndax yaa ngi mbaraanam mm-hmm. euh, man ni ma déggee baatu mbaraan mooy ni ko sama doom ji roxee indee mooy muy muy prostitution euh, déguisée la déguisée la. déguisée parce que bu fekkee da ngay ñëw ak nit génn ak moom fekk ànd bi ngay ànd ak moom yëpp sa bët am na fu mu tegee dafa am looy wut soo ko amul. Euh, nga bàyyi ko wuti keneen wala mhm. bokk su fekkee daf la ko jox ndax am na sànq yéen a ngi koy wax du obligation pour nga nga nga nga nit jox la rek mu mën a séq ak yow mhm. mais yi ci gën a bëri ci naxante yooyu mhm. récupération lay doon beneen voilà légui nak euh, suñu mbokk dañu and dem euh, studio 2 jëli li nga xamanteni moy titre euh, li ñu wara indi tay ci journal ak Pape Ousmane sang bi. waaw mama Marie. no def. ma ngi sant bu baax alhamdulilah maa yaa ngi am jamm waaw ma ngi sant ma ngi sant tay bii nga nu may. waaw ah, ak yow duñu may am na solo fa <laughs> tubaarakallaa ana lan nga fas indi tey ci xibaar yi. mu nga ko bokk na ci train express régional njiitum réew mi di président Macky Sall daloo ko ni ki démb ca Diamniadio jaar ca Rufisque ba ca Colobane fësal koppax yéen ci dugal toll ci juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom benn milliard lu aju ci wàllu kaaraange gi àdduna ca ndàmpaay ñeer ñi lorale ba léegi jotaguñ ko naka noonu ak yeneen ci ay. Uh, fësal ay xibaar yé mu fësal moom mu njiitum xew mi ni ko démb la woon ci ba mu koy dalloo daañu ko jukki ci xibaar na ca bokkit leneen mu aju ci baro bu Sénégal taarix ca bañu ko miine ak léegi ci ab film buñ ca fësal jëm ci rentrée solennelle ñoom di avocat yi àdduna ñi ci li nga xamante ne mooy tolluwaayu seen ko métier xaxar yi jëme ci ñoom ni indépendance bi ñuy woote ñu ci ëpp ci ñoom newuñ ca loolee yëpp tontu nañ ci ci ndaje moomee nga xam ne ko amal ki bi ñu fas yéene ci mi fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom-ñett jëm ci rentrée solennelle bi daañu ko jukki ci xibaar na ci bokkit ndongay nekk ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ni ki dem ci guddi yëngu nañu yëngal sàkku ci ñu fay leen seeni bourse ne du ñu nangu benn yoon la xewoon bu yàggu dara ca bërëb boobee sabab faatu kii di fàllu seen ñu koy dundaat ca université boobee wane naqar googee ni dem ci guddi suñu ndaw di Gambi Diagne ma nga fa woon daañu jukki la waral seenu mer boobee ginnaaw bourse yi leen ci xibaar yi la noonu doon di benn waxtu incha allah dana ci bokkit leneen muy jaraaf bu Dakar ci seizième finale aller coupe CAF daan ñi nga xamante ni ñooy euh, RS bu Berkane ñaari bal ci dara lu ni mel beg loo leen di tàggat di Malick Daaf ne ñaari bal yooyee ñu am doon na lu baax dana leen dimbal ci match retour bi waaye leneen àdduna ca mooy nañu footballé match bi yaa ñu jàpp ni ay rëq-rëq fes ne ci indi ak jubbante laata match retour bi àndoon nañ ci ànd ak suñu ndaw ma ñu teewlu ni ki démb ci stade Léopold Sédar Senghor di Lansana Diandy na solo am na solo ñu ngi lay ñaanal nga yendu ak jàmm. bu ci kanam nga indi ñu yaatal bi incha allah. incha allah bu soobee jërëjëf jërëjëf Pa Ousmane jërëjëf ñu ngi xëccu jëm ci jeex caama. Euh, waxtaan wi ndar képp na. xam naa da ngay indi dénkaane bi sa doom yi. <laughs> waaw xam moom kay bi ma mari la ma nuyuwaat bu baax ñu bokkal place di wax daal jigéen. Mhm. dama koy faral di wax na toog ci lupp ndeyam rek bay mm-hmm. fekk damay wax ne jigéen cox la mm-hmm. fu mu nekk rek mbaam xam na ko waaye man li ma gis léegi man de xaw ma ko mm-hmm. yàlla na leen yàlla teg ci yoonu siraatal mustaqiim ñu egg ñoo ñu def war a def bañ def benn faay ndax jigéen moom mm. su defee faay rek day xaw a doy waar parce que moom moo nekk war a nekk daanoo njël gi day moom moom jigéen ñi rek moo ko war xam nga damay faral ni góor dafa am benn xale bu nekkoon suñu koñ dafa lu ko neex mais bi mu tuubee fi mu dugg may nañ ko jabar góor moom lool mais jigéen boo nekk ci yenn dañ naan xanaa du diw mm-hmm. kii du ma sëy moom ndax defoon na fi lii defoon ndax ñun su dee dafa gaaw a gaaw a yàqu te duñu gis ba kon boo yàlla na yàlla teg si yoonu siraatal mustaqim may nuyu sama doom yi nekk Grande-Bretagne tudd ñoom Fabien Papis waaw mm-hmm. ah, bàyyi su may pare nga dem ngay jox Roqeya mm-hmm. ah? dan maa tongal fii xam nga ko caama <laughs> xaw ma xaw ma Roqeya tënk waaw euh, comme niñ ko waxee rek yaay euh, mbaraan moom baat bi rek doonul li nga xamante ne nag euh, baat bu neex la mhm. waxatuma laa ñu jël ko euh, taf ko jigéen ñi mhm. donte ren euh, jamono ji bal bi si ñaari camp yépp la nekk ni jigéen ñi di mbaraane noonu la góor ñi di mbaraane ndax ñoom bu ñuy dugg dañuy xool ci ki ñuy dugg lan la leen mën a apporter mhm. ñu teg ko fi ut keneen teg ko fee di sélectionné comme jigéen ñi ni ñuy sélectionné mais lu ci mënti am rek na nit ñi def ci seen xel ne maa ngi mbaraan taxul ne maa ngi jox sama bopp ñi ma ko ñi may ñi may àndal ñëpp li sama yaay doon expliqué sànq nag ci waxu diw ñëw na sama kër indi na fa loolu ci sunu langage ñun dañ naan sunu ñàkk mbootaay la moo ñu ko jox ñu ko ko donc euh, ñu jàpp rek ne xale yu jigéen ñi tamit nañu delloo siwaat sunu xelan ah. mhm. ñun ñëpp maak samay moroom ñoo ci yem dëgg ñoo toll ci ndaw mhm. waaye nag nañ ko rafetal ndax way wi day des bu ëllëgee am na solo jërëjëf Luisa man li may wax rek euh, maman Marie mooy euh, mbaraan mm. je peux dire aujourd'hui que mooy cause de divorcé si mariage yëpp. yu si bëri. Mhm. ndax euh, damay waxalee jigéen ñi ku tam mbaraan. Mhm. doo sëy. ndax boo taamee nekk ñett. Mhm. nekk benn dina jafe trop ci yow. ñuy bàyyi xel loolu bu baax a baax te xam ne mbaraan amul mucc. oustaz Birima. moo ñuy yar doom yi rek ndax éduquer un homme c'est éduquer une personne. wax ñett yi. ndax mayte dina ma ko may. non waxtu yu jeex na kay mais tënk ko rek. waaw ñett yi moom moom roqee xam na ko mooy le chèque le chic et la boog le chic mooy ki nga xam ne dafa il est beau. xale bu góor la bu rafet bu góor yiw mhm. bëgg nga booy dem fenn ànd ak moom. mais yow xam ne bëggoo mu doon sa bàyyi doom bëggoo mu doon sa jëkkër. d'accord le chèque moom nu mu mën di mel foo dem daal moom mooy dog mooy dog buubu gàcce yi xaalis la yor di la ko jox. d'accord sox xaalis nga soxla si moom. d'accord mais nag moom la le choc mooy ki nga xam ne nag moom nga bëgg kenn du ko xam. da ngay xëy xëy ne diw takk nañ ko. xanaa moo tax ñu ne diwa koy choc. waaw loolu la mooy jigéen ñi loolu la ñuy def ñoom bi may jeexale nag yaay mooy éduquer un homme c'est éduquer une seule personne mais éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. d'accord d'accord kon a baax. am waxtaan wi jeex na ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi àndoon ak ñu rawatina ñu bëggoon dugg te mënuñoo dugg ak ñu toogoon di ñu seetaan ñu ngi leen di wax ni waxtaan bi fii lañ koy tëjee ba beneen yoon ëllëg incha allah oustaz dina teew ñu ngi koy ñaanal jàmm fu mu mën a nekk yiw yàlla ci kawam ñu ngi leen di jox dig daje altine ci kàttun yàlla di wax ne lu jiwoo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 laa ilaha illa ant allahu akbar alhamdulillah bu la àdduna diggée ni da nga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax allahu akbar alhamdulillah territoire du Sénégal, nous mettons à profit la force de l'eau, la puissance du soleil et du vent, la fiabilité de la technologie